wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ci barab bu tedd bi ni ko mu assasatul wafaay bi xuquqil iman baaxoo defee ci waxtu wu nekk ñu tànn kenn ci boroom xam-xam yi jox leen thème yu ràññiku ngir ñu waxtaane ko ci barab bi su ko defee jullit ñëpp mën cee jariñu Euh, tey jii ci alxames ji ni ñu leen ko waxe woon ñu ngi fiy dalal Cheikh Mouhamadul Mamoun moom sëñ Mouhamadul Fadal moom Cheikhul Xadim ñu war a ànd ak moom nag ci thème bu am solo muy at tasaamux te mooy yaatug dënn su ko defee ni ñu ko baaxoo defee nag képp koo xam ne jaar na fi ñu lee tuuti ci ay jaar-jaaram ak yëngatoom ci wàllu xam-xam moom cheikh Mouhamadul Mamoun mi ngi jànge alquraanul karim ci daaru salaam gannaaw bi ci la dem ci kër ma sëñ kër ma ñaaw si la ba mi ngi wax sànq ne mook cheikh Abdou Samad di kenn ci mbooloo mu assasatul Wafa yi euh, bokkoon nañu tase woon nañu foofu di jàng gannaaw bi nga xamante ne jeexal na am njàngam foofu ci wàllu alquraanul karim ci la ñëw tuubaa tàmbale ci daara ju jooju ci jumaa ji te sëñ As Jaxate eh, daa fa jàngale xam-xam foofu fa la dalee xam-xamam njàngum xam-xamam gannaaw boo xamante ne bàyyeekoo na foofu itam ci la dem Dakar tàbbi ci école franco arabe ya fa nekk jàng fa ba jeexal fa gannaaw bi ci la génn réew mi nag ngir yokk ay lijaasaam ak ak ak jéegoom ci xam-xam ci la dem nag ci dëkk bu ñuy wax Jazaïr ci Algérie foofu fa la jàngee euh, gannaaw ba mu fa jógee itam nag ci la ñëw Maghrib maanaam Maroc gi fa la euh, continuer am njàngam jaar ci kulliyatul xuquuq gannaaw bi ci la dellu ci réew mi ci université bu Cheikh Anta Diop bi foofu itam jaar na fa ci kulliyatu aada kulliyatul aadab wal ulumul insaan yi ci xismu luga al arabiya foofu itam fa la génne kon mën nañoo wax ne kon lii ñu koy waxtaane loo mën na euh, lu mu xam la mën na cee wax bu baax a baax a baax euh, jamono jii ñu toll nag ay yëngatoom mu ngi jëm ci taxawu taalibe yi ak yar leen euh, ci biir réew mi ak yi bitim réew ak taxawal ay daara ay ak di ko saytu la way juróom yu tedd ya nekkoon ci loolu la nekk di ci yëngatu bu ko defee kon incha allahu taala moom la ñu fas yéene àndal ci waxtaan wi ñu fàttali mbokk yi rek ne leen suba incha allahu taala fas yéene nañoo dalal docteur Sëñ Mbay Jóob su ko defee ci Sëñ Mbay Caam waaw su ko defee ci àjjuma ji waaw ci euh, dibeer ji ñu jëm sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir moom la ñu fas yéene àndal mu ñëw waxtaan ak ñun ci xikaayatu saalihina ni ñu leen ko diggee woon ci ayu bis gëla wees woon te mu amoon ay gàllankoor su ko defee ci altine ji professeur Ibrahima Thioub nga xam ne moo doonoon ancien recteur bu université Cheikh Anta moom la ñu fas yéene àndal moom tamit mu waxtaan ak ñun ci sëñ Touba fan la fekkoon société bu senegal waaye fan la ko fan la ko yóbbu kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci ayu bis yi su ko defee bu ñuy jeexal itam incha allahu daañu leen limal rajo yi nga xam ne ak chaîne YouTube yi nga xamante ne ak télévision yi nga xam ne dañu koy jàllale ñoom nga xam ne boobu ba léegi bi waxtaan tàmbalee ba léegi ñu ngi koy jàllale bokk na ci yooyu mën nañ cee tudd rek rajo Daaru Muxti bi nga xam ne direct la koy def ci chaîne YouTube yi mën nañ cee tudd Alwafa Daaru Muxti moom itamit direct la koy def ak Facebook bi su ko defee bawal euh, daaru média itam moom tamit da koy def noonu Touba Vision itam da koy def direct su ko defee euh, képp koo xam ne itam waxtaan yii fi jàll euh, yittewoo nga ko mën ngaa dem ci telegram bu bu alwafa daarul mooti alwafa daarul mooti boo duggee ci telegram boobu 2006 ba waxtaan wi nga xam ne moom lañ mujjee def képp koo xam ne soxla na ko bu jaaree foofu dana ko mën a am su ko defee incha allahu li ñuy def mooy dañuy jébbal kàddu gi sëñ bi Euh, di ñaan yàlla yàlla defal ko tawféex te defal ñu ko képp koo xam ne itam lii muy waxtaanee am na laaj bu aju ci loolu mën nga koo bind jébbal ko ñi nga xam ne ñooy saytu wàllu laaj yi su ko defee bu waxtaanee bu noppi dina ci andi ay tontu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aoudu billahi samii alalim albaaqi alqadim min alcheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi waxdahu wasalatu wasalaamu alamin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim taslima subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alxalimu alxakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma ij'alna min alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barke borom Touba. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam naa ba la ñu tàmbalee lenn rek dañuy tàmbalee eh, siyaare njaboot gu tedd fi teew masawu leen xew-xew bu fi jàll te ñu bokk ñun ñëpp ngeen xam ko mu di ñibbik àjjana sunu mag sunu kilifa ku tedd sëñ Mouhamadou Moustapha Habsa ak moom sëñ Modou Aballa ñu koy siyaare mbokk yëpp. li ko jaale suñu bopp leen ko jaale di teg ziare bi ak njaal mi ci loxol sunu xarit sunu bokk mu tedd mi Cheikh Abdoul Bachir mu yor kaddu kër gi ak Cheikh Abdou Samad rakkam ju ak mbool mbokk yi fi tedd yëpp ñu tegal ko ci loxo Cheikh Mouhamadul Bachir ante ñu mi xalifa borom daaru ak njabootu borom daaru gépp ak njabootu Cheikh Moussa Moustapha Absa gépp di leen ko ziare yéen ñëpp ñu jàllale ko ba ci borom jataay bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ziare ko ko jaal ko ndax mbokkam la ci ay yooni yoon te mooy jata mooy borom jataay bi ndax jataay bi jataay la jotaay bi jotaayu murid la te mooy kilifa ak murid yi comme lu ñu fi def rek moom lañu fi def moom lañu koy defal lu ñu fi wax moom lañu koy waxal eh, di jégalu nag xam naa ne eh, kàddu yu gàtt la nar a doon rek te jéem lay doon eh, gannaaw bu ñu tàmbalee kàddu yi ci ziare dëkk bi ak waa dëkk bi teg ko ci loxoom Cheikh Amadou Bachir nag ak Cheikh Abdou Sam rakkam yi ak mbokkam yi te di fi teew yëpp ñu jottali ñu ko ci kilifa yëpp te ka ca bopp ni ma koy waxee mooy Cheikh Mouhamadoul Bachir Anta Niang ak njabootu waa daaru gépp gannaaw waxtu yi dafa xaw a xat te li ñu jëkkanteeg ñoo ni ngeen koy waxee jëkkanteeg waxtu yi dañ dama xalaatoon rek waxtaanee leen ci li ñuy wax tasaamoox mooy yaa dënn yaa dënn googu nag euh, muy liñ ci kàddu guñ mën a waxee wax ju bari ju yaatu waaye gannaaw jataay bi ni mu demee la dañ ciy tënk yu baree bari rek euh, di leen siyaara ci weeru tedd bi ñu nekk di shahr ramadan mubarak di ñaan niñ ko tàmbalee nii ba mu sori ci bismillahi rahmaani rahim yàlla na àgg ak alhamdulilahi rabbil alamin te loolee ci yonante bi dilee ne awaluhu rahma wasatuhu maghfira wa axiruhu atqun min an naar yàlla defal ñu ko yàlla ñu ci yàlla defal ak njég ay yërmaande yàlla ñu ci yàlla defal ak njéggal yàlla ñu ci yàlla defal ak ngoreel ci sawara ci barkeb Sëriñ Tuubaa eh, waxtaan wi dañ koy dënk rek ci juróom benn point yu gàtt eh, ngir leeral danañ ubbi waxtaan wi eh, wax muy tasaamu yaa dënn mooy lan njëkk bi ñaareel ba yan mooy xeeti yaa dënn ñetteel ba lan mooy meññetum yaa dënn maanaam nit ko bu yaatee dënn lan la lan la ñuy mën a jural ñeenteel ba mooy naka lañ ko mën a gise ci njàngatum sëñ Touba sëñ Touba naka lañ ko mën a xoolee ci ku gën a yaa dënn ñëpp bu ko buñ ci jógee juróomeel ba mooy ay xalaat yu ñu leen di wax rek juróom benneel ba mooy dañuy tëj tëj ñaan barkeeloo ci ay way yoo xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal la ko defoon ñun tam ñu barkeeloo ci dabu daax ci ay woy barkeeloo ko ko te tëje ko lépp jëm ci eh, melay borom daaru ak ak mbaaxuk borom daaru ak matuk borom daaru rek wa alallaahi tukkitaan kon nañu wax ci tàmbali gi eh, gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci nant bi sallallahu alayhi wa sallam ziyaara Cheikh mu Muntaxa mi borom jataay bi ñaan yàlla yàggal ko fi te yàlla yàgg eh, wéral ko ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg a liggéeyal Cheikh al lépp mu àggale ko ci sago te nu fekkee ko te ànd kook moom di ziyaare Cheikh Mouhamadul Bachir Anta Ñang borom dëkk bi borom jataay bi di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba lii mu sëmbu ak yi mu sëmbu yëpp mu àggale ko ci sago te nu fekk ko moom itam te ànd ko moom ci barke borom daaru barke borom Touba di ziare njabootu borom daaru yëpp ni ma ko waxee sànq rek di teg ziare bi ci loxo Cheikh Ahmadou Bachir mu yor kàddu kër gi ko ziare rek kon tudd nañ ñëpp mu jàllale ñu ko ci njabootu borom daaru yëpp rawatina suñu doomi sëriñ ji fi nekk di soxna Mariama Kunta Mbàkke jaar nañ këram léegi ziare rek waaye nañ nañ jottali suñu ziare ci moom di ziare suñu mbokk suñu Cheikh astu fay moom tam ñu seq yu baree bari dama koy wax moom suñu mag la suñu nijaay la ndax suñu nijaay dañoo màgg doog moom wala réewoon teg moom ànd ak moom yu bare bare bari ñu jot leen suñu ziyaara ci boor di ziyaare mbooloo mi mi taxaw taxawi alwafa bi di leen ndokkeel di leen di di di di leen ndokkeel di leen euh, sant bu baax ci xalaat bu rafet bi ñu def ak dundoo gi mu dundal lislaam mooy lu am solo loo xam ne yàgg nañoo sàkku ma teew ci waaye xam naa xarxati jamono ak euh, ñàkk a toog ak ay yëf-yëfaan rek taxoon na mënuñu ko waaye kon ren biñ ci ànd mënee teew dañ ci sant leen ci sant bu baax a baax muy lu rëy rëy rek ndax dundal ak bokk la dundal islaam la dundal xam-xam la te fii dëkku Daarul Muxti dëkku xam-xam la dëkku liggéey la dëkku wilaaya la dëkku ngor la dëkku diine la kon ku fi dundal jotaay yu mel nii yaa ngi liggéeyal borom dëkk bi di ko liggéeyal sëriñu borom dëkk bi liggéey di ko liggéeyal sëriñu sëriñu borom dëkk bi di sallallahu alayhi wa liggéey bu rëy rëy boo xam ne dañ ci ndokkeel di jéggul nag yeex gi ma fi yàq yeex a tabbi waaye sama xol ak sama lépp nga àndoon ak yéen maa ngi yu bëri itam nag ndax euh, yu bëri yu ñuy def ci euh, internet bi maa ngi koy suivre di ko bàyyi xel euh, yaatu loo xam ne jamono da ko laaj ndax jamono ji nekk dafa xaw a doy waar bari xat-xat kenn ku nekk naan man a man a man a man a kenn ku nekk bëgg sa bopp gëm sa bopp kenn ku nekk bëgg a tëju defe ne lu baax rek yow rek ko yeyoo ëppal ci dara baaxul te mbindeef yëpp jaboot ak suñu borom lañ wal xalaqu iyaalullaa kon nit ku nekk bu jëfante nit di fonk alalam ñun ñëpp alal yàlla lañ ñun ñëpp njaboot suñu borom lañ kon dañoo war a fonk dañoo war a fonk suñu biir ñun ñëpp kenn warul ne man rek maa war a am lu baax wala man rek maa war a mel nii ñeneen ñi sama yoon nekku ci loolu njuumte la kon bu ñu doon laaj ne tasaamox mooy lan maanaam euh, yaa yaa dënn mooy lan nuñ koy mën a xamlee taarif ma ciy proposé benn taarif rek boo xam ne mën naa am sax dafa demee wax ne Darou Mouhty fu neexee waxee la waaye fu naqaree waxee la fu fu neexee waxee la moo fu naqaree waxee la ndax li ngay wax ñi toog ñi la ko gën a xam dafa bari la li ngay wax ñi lay déglu ñu ci ëpp ñoo la gën a xam ñoo la ko gën a man ñoo la a xam ñu koy defee loolu moo tax mu naqaree waxee waaye neexee waxee itam ndax boo juumee ñu gàgganti la kon doo ci am ragal ndax boo juumee ñu le du nii noonu la nii la du nii nii la kon nag ak la bu defee dañuy wax rek ne la imaam Malik waxoon rek radiyallahu anhu ni kenn ku nekk ci ñun da nga wax juum wax ñu jubbanti la ba mu des borom xabru bi kon fii tam ko fi wax rek da ngay sa xel day dal ndax da xam ne boo juumee dañ la dañ la gàgganti kon alhamdulilah rabbil alamin donc wax ne kon mën naa wax ne tasaamox boo ko doon boo ko doon xamle wax ne mooy da ngay da jàpp ci li nga am ak li nga gëm ngay jàpp ci li nga am ak li nga gëm nangul keneen ki mu jàpp ci lam am ak lam gëm nga yéene lu baax di wax lu baax di def lu baax di ko defal sa bopp di ko defal ku yow ci àdduna ak àllaaxira ak barsax tey diggu doomu ci li ngay def tey am fulla nag ci défendre say maanaam aar say sa la nga gëm ak la nga am ak la nga sémb bu ma ko baa moo deex dag at wal at tamassuk bi ma lak wa bi ma tumin wa qabul ma lil ghayra wa bi ma yumin bi fi'lil xayri wa qawlil xayri wa wa niyatil xayri li nafsik wa li ghayrik dunyan wa uxran wa barsaxan wal wasatiya fi l mawaqif wa saraama fi ddifaa an il mu'taqadaat xam nga définition bu xaw a kii waaye li jublu rek mooy élément yu ma ci bëgg a dugal da ngay li nga am li nga gëm da koy jàpp nangul keneen ki tam lim am ak li gëm mu jàpp ko ngay yéene lu baax di wax lu baax di def lu baax ci àdduna ak àllaaxira ak barsàq tey digg doomu nag ci la ngay def doo xabaabal doo yàccaaral waaye nag bu bu aar sa mbir jotee nag ci la nga gëm ak la nga am ak la nga nas da nga cee am fulla na loolu lañ ci ñëw ndax jamono dafa day waat laaj ko li ñu am laaj nañu aarate ko ñu ngi koy aar waaye nañ ko gën a aar kon dañu mën a wax daanaka kon xaw ma ndax li muy wax leer na am déet waaye loolu laa bëgg jublu ci tasaam wax waaw jàpp ci li nga am ak li nga gëm nangul keneen ki lim am ak lim gëm di yéena lu baax di wax lu baax di def lu baax yéene ko sa di ko defal sa bopp di ko defal keneen adduna ak àllaaxira ak barzaq tey digg doomu ci la ngay def doo ëppal doo xabaabal doo doo yàccaaral doo xabaabal waaye di di di aar ak sa mbir say mu'taqada la nga gëm ak la nga am ak la nga sëmb bu ko defee bu ñu delloo ci islam yi nga xam ne mooy cadre général bi ñuy waxtaane ndax fii dëkk ci islam dañ nekk dañuy wax ne cosaan la ci islam mooy attasaamo te sallallahu alayhi wa sallam mi waral diine ji waral lépp di royukaay bu mag bi mooy mooy kana kanal mutasaamih al awwal moo gënoon ëpp ñëpp tolérance ñu mën ko gis ci lu bare bare ci ay waxam ak ci alquran al karim ak ay jëf yi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa indi ay mabadi ay principe bokk na ca aay ba ñëw ci suratul baqara ne la ikraha fi diin xat tabayyana rushdu minal ghayy ngeen ko jàng saa bu ne maa ngi gis ñu bare bari ci yéen kaamil lañ seen loxo kon alxuraan moo njëkk indi xalaat boobu diine amul contrainte da ngay gëm lu neex gëm lu neex nga bañ a gëm kon kooku moo kon diine ji njëkk jàngale fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ay alxuraan ci ay alxuraan kum neex nga gëm kum neex nga bàyyi ay bu nekk nag am na contexte bu ko taxawoon wax bu ko taxawoon wàcc waaye loolu tax maa jóg ndax yéen jànkati usul yi on a baal usul bari nañ fi lool dañuy wax ne nas bu ñëwee ci ci diine al ibratu bi umumi laf laa bi xusuus sabab donc nas bu ñëwee dafa am lu ko tax a ñëw alquran aaya bu ñëw am na sababu nuzul sababu nuzul boobu nag du loolu la moo ko tax a wàcc waaye maanaama day day day làmp làmb ñëpp kon bu ne yàlla ne laa ikraha fi diin ka taxoon mu koy wax d'accord noonu la waaye waaye xalaat bi dafay des ba faaw kum neex nga gëm kum neex nga bàyyi kon tasaamu foofu la foofu la foofu la mën a yem lakum diinukum waliya diini yéen moom seen diine moom moom sama diine waaw comme neex nga kon nag ku ne nañ la bàyyee ci la nga la nga nekk minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxira ñi dañoo bëgg bëgg yëngu ngir àdduna ngi yëngu ngir àllaaxira ñun ñun nag ñun murit ñun taalib bi ñu yëngu ngir ñaar yëpp waaw waaye kuñ gis nga yëngu àdduna kese suñu yoon nekku ci kuñ gis nga yëngu alxuraan kese suñu yoon nekku ci waaye yëpp rek sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkoon mutasaamih maa nafsihi wa maa usratihi wa maa ummatihi sallallahu alayhi wa sallam téere xadiis yi dañuy nettali ne te loolu ñu bari ma gën a xam fii ne bi mu nekkee a madinal munawwara xam ngeen demee risaale bi ñaar fukki at ak ñett la fukki at ak ñetti makka fukki at madina bi mu nekkee madina nga xam ne boobu taxaw na ba taxawal état islamique am na délégation bu jógee fu ñuy wax najiraan am na ñuy wax beneen dëkk waaye najiraan moo gën a siiw ay ñëw ma ñëw madina bi dimanche jotee chrétiens yi bëgg def bëgg def messe di jaaxle fu ñu koy defee parce que Madina amul église di ko ngun-ngunee ba mu àgg ci ku tedd ki mu ne waaw lu ngeen di wax ñu ne ko ah suñu mbokk chrétiens yi dañoo am jafe-jafe ndax tey day dimanche mu war a nekk bis bu ñu seen julli eh, seen seen xuddaas mooy mooy li ñuy fu ñu koy defee mu ne leen fu ngeen koy defee fu dul sama jumaa ji man maa leen gën a yee ci Aïssa parce que sama mbokkum yonent la ñoo bokk bokk ci ulul azmi nga xalaat fi ñu toll ku ne woon rek Cheikh al Mouhamadou Bachir mu tedd def mees rek tey bu sàggee ne te xaraamul waaye nag tradition bi ko nanguwul ah aadaa nanguwul ci ñun aadaa ko miinul parce que sallallahu alayhi wa sallam deful na mees ca jumaam ja sallallahu alayhi wa sallam Madina a a a yem ci ci ci dunduk bi biir këram amoon na soxna soo xam ne d'origine la copte Maria Maria Qibtiya Qibtiya cosaanam Égypte la nekkoon chrétienne xam ngeen ne eh, masiix yi dafa am ay ay ay pàcc am nay catholique am nay protestant am nay copte am nay orthodoxe am nañ anglican yooyu yëpp xeeti chrétien la mais fii Sénégal catholique yi fi ëpp chrétien catholique mais boo demee Égypte dañuy nekk ay chrétien mu nekk ay copte am nañ seen pape comme ni ko catholique yi amee pape bu catholique mooy nekk Rome euh, pape bu copte yi nekk Égypte orthodoxe yi am seen copte moom itam donc yooyu yëpp xeeti chrétien la yoo xam ne eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam na koo xam ne cosaanam copte la am na sëriñ fii dëkk boo xam ne fii ne dëkk bi ne sëriñ bu ko defoon fii ne dañaan woo sëriñ ndax mi ngi ànd ak sagom waaye teewul Copte ba mujj na tuub ba nekk kilifa nekk ci umul muhaatil muminin kon loolu da doon jàngale sallallahu alayhi wa sallam loolu mën nañ ko mën ca jàng-jàng mu rëy rëy ndax ki yàlla ki yàlla tànn bu demee ba tàtt koo xam ne cosaanam chrétien la di Copte dëkk ci Égypte mu koy mu koy dëkkoo boole ko ci waa gërëm loolu te sama fa la mën a yem ak ubbeeku ak yaa dënn am ñetti saxaaba yoo xam ne dañoo xër jërul ñu ciy xóot ndax seen tur dafa am wuute waaye lañ doon bëgg def rek dañoo ñëw kenn ku nekk di wane sa xër kenn ku ne ko mën daal damay woor sama adduna sépp du ma dog ñaari fan daal lay dog ci at mi mooy tabaski bisu tabaski ak bisu bisu korite nga xam ah, koor leen woor leen dafa xaram sama bis yëpp dama koy woor 363 jours yi ci des yëpp ci at mi dama koy woor at mi ñaari at ñaari bis yi nga xam ne koor leen woor leen dafa xaram laa dul woor kenn ku ne ko man su ma xëyee ba jant bi fenk damay jàpp toog di xool jant bi rek ndax bëgg mbugal sama bopp ndax ma ne na gëm naa yàlla xool jant bi rek kenn ku ne ko man du ma jege soxna yi man du ma am soxna damay far sóobu rek wéy kenn ko nekk di jaay sa positif di jaay sa xër jëf eh, ci diine ji bi yëf yi àggee ci ko tàddi ki sallallahu leen déet mbir bi du noonu man damay woor dog du ma toog tam di xool jant bi ndax jant bu Arabie Saoudite bu tàng bi koy xool sa yëbët kenn jant bët jariñoo lay jariñ jëfandikoo liggéey jàng yokk xam-xam yokk sa teraanga waaye kenn waxul xool ci jant yàq say bët te it damay ami soxna nag damay ami soxna dëkkoo leen am ci am ci njaboot liggéeyal ci yoon xeetu yoon sama xeet kon xaabaabal baaxut loolu leen bëggoon a jàngal xam nga boo nee damay woor at mépp fu ma toll di woor kooku bu yàggee sax baaxul ci sa wér-gu-yaram lu koor baax baax ci nit soo ko dëkkee bu yàggee mu lor la ndax islam diinul wasat wa ja'alnaakum ummatan wasatan la wax yàlla ko neexoon mu ne islam bi koor la lépp kon ñuy war at mépp waaye nag xam na ne yërmande jaa tax ak ak li ñu moo tax mu defal ñu ko weer weer wi yéegi des nag tatawur tatawaat la comme neex nga def ko waaw waaye li ci farata mooy mooy shahr ramadan xam ngeen ko toog xëy di xool jant bi tam yàlla digalu kenn <laughs> xool jant bi amul njëriñ du la yokk dara du yokk xeet wi dara du yokk diine ji dara waaw ñàkk ñàkk takk soxna tam du ndam ndax xeet yi da ko war a yokk ndax génération bi dafa war a renouveler wu dégg te it xef su nas la ngeen ko xamee dafa bokk ci al mabadi al kulliya lil islam waaw wattu xeet wi xeet wi yokk di judd di continuer di liggéeyal islam liggéeyal diine kon léegi su takk ay soxna ci ko man wàññiwu dara waaw alayhi salaatu wasalaam loolu leen jàngal ñu mën cee wax lu baree bari nag waaye ngir bañ a guddal rek dañu indi exemple yooyu rek waaye tasaamo dafay yàgg te ci cosaan la ci diina ji lan mooy xeeti tasaamu xeeti xeeti xeeti yàddin yi mooy lan xeeti yàddin yi bari lool mën nañ ci lim yu bare bari mën nañ ci gàttal yenn yenn rek mën nañoo wax ne tas ba liñ ci ëppal solo mooy nga am yàddin ci diine mën nga yàddin ci ni ngay jëflanteel mën nga yàddin ci sa digganteeg sa bopp mën danga nga yàddin ci sa njaboot da nga yàddin ci say dëkkandoo da nga yàddin ci fa ngay liggéeyee ak fa ngay yëngatoo da nga yàddin ci sa jaamu yàlla fu ci nekk rek mën nañ caa wax lu baree bare waaye xam naa xataayo xataayo jataay bi moo tax dañ ciy tënk tuuti rek li ñu ci gën a ñoral mooy yaa dënn wala tasaamu fi diin tasaamu fi diin defe naa ne li ma wax sànq sallallahu alayhi wa doy na jël ñoo xam ne bokkuñu diine ñu sa jumaa ju tedd ji Madina dafa def mees loolu yaa dënn fa la a yem takk koo xam ne d'origine copte la cosaanam cosaanam jullit nga jël ko def ko sa njaboot am teraanke yonante bi dëkkoo la kooku yaa dënn fa la mën a yem dafa am mel benn mbokk bu baax ndeysaan du ma tudd turam dafa ne ma ay jamono dafa mere woon sëñ Fallou te ñimiwu koo wax te xamutam ku mu koy wax mu ne quoi lu ko waral mu ne da ko mere woon ndax Senghor mi bàyyi muy dugg ci jumaay Tuubaa ji waaw mu ne mu ne waaye mer ma euh, Jérusalem la la giife mu ne ko ah sëñ bi yow fi nga mere rek fi nga giife sore na di mu ne dafa da ko mere woon ndax loolu waaye ñimiwu ko parce que jaaxal na ko daal sëñ Fallou ni ko sëñ Tuubaa jaree moom Ceerno yar ko ak li mu jàng di mag bokk sëñ bi ba noppi di di bàyyi di bàyyi Senghor catholique bi muy dugg ci jumaa ji nee na waaye mu jàpp sama mer rek nee am benn at muy dem Makka jël li ñu daan wax wala international nga xam da nga jaar Maroc jaar France jaar Liban dem Jérusalem nee muy ziyaare ba Jérusalem jumaa ja gis fa ay nit yu solo weex yu rafet nee muy laaj ba xam ñii ci ban lañ bokk ñoo ko déet ñii sëñ bi duñuy du ñuy jullit sax ay ay catholique la yu jóge Argentine dañoo ñëw di ziyaare jumaa ji ay labbe lañ mu ne ah labbe mën na dugg jumaa ñu ne ko waaw aramul daal koy nettali xissatu eh, Najraan bi mu wax sànq ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne aha man kii ndekk maa xamutoon Senghor lu mu mën di mel ak lu mu sikki sikki du labbe catholique la waaye du labbe kon nag araawul mu dugg ci jumaa ji ñi nga xam ne ay labbe lañu mu dugg ci jumaa Jérusalem nga xam mooy ñetteelu jumaa ci àdduna gën a Makka ak Madina kon ma giife ma ne ko ah, yaa koy sa <laughs> kon dañuy war a laabiral ci diina ji yaadan ci diina ji diina ji xam dafa am ay pàcc pàcc pàcc yooyu dañ cee war a laabir maanaam bu fekkee ne yow da ngay nekk sunni rek nga nekk dul sunni dama lam nekk du dara da nga nekk taalibe murid nga nekk dul murid du dara biir murid gi sax nga koy def pàcc da nga gis ñoo xam ne fi ne daaru gi li muy baax baax ñëpp baax waaye dañuy ñëw ne ma daal sëñ Mourou Mahfouz rek sëñ lay noyyee àdduna ak àllaaxira ku dul sëñ Mourou Mahfouz amu coow soxla <laughs> loolu baax na baax na lool waaye nag eh, am na mbokk yu baax yu fi nekk <laughs> dama ko waxee misaal noonu ngir leeral rek waaw ndax mën nañoo tudd kenn mën nañoo tudd waaye comme sëñ Mourou Mahfouz moom sëñ naa ko tudd ma tudd sëñ Mourou Mahfouz rek waaw bu ko defee madhab yi ngay bokk nekk nekk xanbali wala shafii wala na leneen loolu nekk eh, eh, eh, shafii wala maliki da nga koy nekk waaye nangul keneen ki tam lam nekk bu leen li mu nekk rek mooy dëgg ndax ixtilaaful ulama rahmatun lil umma waaw ah, bu bu ko defee ci ci ci ci ci biir madahib bi da nga ciy da nga ciy yaa dënn ci biir tare turuq yi nga yaa ci dënn sëñ Tuubaa ba muy wax ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillahi waran yahida sawa intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qataan ala sawaabi boobu koy wax yàgg na ci masalikul jinaan ci mu lafaar yu njëkk yi la kon kooku yàdd na ci ci ne moom la mën a yem te bu accès ci moom danañ ko gën a xam jëf jëflante bi nga jëflante ci sa ñi nga nekk ak sëy da nga cee war a yàdd na yonente bi alayhi salaam nettali nañ ne sallallahu alayhi wasallam tuwaffiya wa dir'uhu marhuun inda yahudi protège bu mu daan takk buy xeex nga xam bañ lay doon pour bu lay jam paak fett yi ak yi du la jàll sallallahu alayhi wasallam nee nañ bi muy génn àdduna xadis bi wér na wérut waaye rod na war ñu koy nettali kon nga xam ne jëflanteeg juif araamul ndax bu ko araamoon sallallahu la moom muy jullit di gën ci biddeef yi waaye am na soxla yu mu soxla woon xañ na jàppandiwul foofu mu mu ñu gën a booleeg yàddana non jullit waaye ñi du jullit sax dañ cee war a yàddana suñ biir biir njaboot gi dañ ci suñu digg inel daf si ka xaqan kon sa diggante ak sa jëmm euh, da nga war a da war a yaa dënn bu jàggeen da ngay teg sa bopp loo xam ne attuloo ko comme kii waxoon day xew day day yendoo xoor jant bi yonte bi ne ko du noonu kii wax ne damay wóor adduna sëpp mu ne ko du noonu day defal loo man rek wa ja'alnaakum ummatan wasatan li gën ci mbir rek mooy li gën a digg doomi kon da nga war a yaa dënn ak sa bopp yaa dënn ak sa njaboot doo ñëw terroriser ba nga xam ne fu foo yëngutu rek ñu ne paa bi ñëw na de daal di doo laqatu déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan kaf ak ñoom xam ngeen ni dañuy nettali sax ne àggoon na ci Aïcha dàqanteeg moom ngeen baal ma ci waxin bi waaye eh, eh, eh, téere yoo ko li ñu wax ne ba mu fi door a dem Aïcha nga xam bu dafa xaw a tuuti mu dàqanteeg yonent bi raw raw ko Aïcha raw yonent bi bi mu demee ba ca kanam ba am fay am fay fan ba xaw jël pois ñu dàqante yonent bi raw ko ne ko haadihi bi tilk waaw hadihi bi tilka bo bii daal ca boobee rek ba nga nekkee xale gën maa woyof yaa ma rawoon te nag jël nga jël nga xam nga jël nu mu tuddati lef ni ko wala fi wax xam nga am lef raw naa la sëñ sëñ Muudu Mahfous bu ñu newoon fi day dàqante ne kenn ci waa këram dañu naan kii moom xanaa war nañ koo def ni dara jéggal ma ci waxeen wi te sallallahu alayhi wa sallam bërëm lépp di dàqanteeg waa këram loolu woyof la ak laayante biir sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jéggalu ci waxeen wi rek ngir bëgg li ñuy wax bëgg gën a leer rek da ngaa war a laa da ngaa war a yaa dënd ak say dëkkandoo sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy royukaay bi am nañ dañuy wax ne am na ku ñàkkoon solo bañ ko daan sotti am sébrit ak yu bon ci yoonu këram waaye ñoo dend kër di ko def bu ñëwee rek gars nar ko kii mu ne bu leen ko wax dara bàyyi ko rek ba ba mu yàgg kooku feebar yonent bi xëy benn bis ñaari bis gisul gisul lu sébrit yaag ñàkk solo yam fa daan sotti mu laaj waaw ana ana ki daan sotti yëf yi fii ñu ne ko dafa xaw a feebar de moo tax ah mu ne moo koy tax kay fan yi sottiwu ko fi dama koy seeti ah, def lu baax mosulaa yéene dara mi ngi jël yu te yu settam bi mu ne waaw waaye doomu adama la ñu dem ko ca ba mu ñëw waa ji ne ko mu ne ko maa la tax a jóg mu ne ko ah yaa ma tax a jóg ndax ndax sama sama diine dafa ma dénk sama dëkkandoo ma koy toppatoo te day nitu nit nga mbindeef nga yàlla la bind ci la tuube ne ko ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu annaka muhammad annaka rasulullah man nga xam ne yéen dara lu baax du ma def dara lu bon laay sut sa bundu këram def ma ko ñetti fan yi nga laaj ne dama feebar nga ñëw di ma seet si yow yàlla la yónni ah, kon ko xam ne kon nit ki dafa war a nga laa biir sa say dëkkandoo wala tasalul jibrilu yuusini bil jar ko mais jibril dafa ne desul di ma dénk dëkkandoo ba ma defee ne far dana mujj ne ba dëkkandoo yi soo génnee àdduna mu donn la kon dañoo war a laayante biir dañoo war a yaatalante ak suy dëkkandoo te adda al jaaru qabla daar la yonent bi waxoon da nga tànn sa dëkkandoo bala nga tànn sa ki ngay sa sa kër ndax dëkkandoo dafa dafa li ñuy wax jàmm ci gën ndax ndax bisu day bette kon loolu lépp lu ñu mën a wax lu baree baree bare ci yaa dënn yaa dënn ci wàllu xalaat wala xalaat boo xam ne doole rek man ni ma gisee mooy dëgg da nga gisee dëgg la ci yow waaye keneen mën naa gisee neneen nangul ko ko nag te yéen xalaat bu génn bul xool ka ko wax ak fa mu dëkk ak ñam doon xoolal jëmmi xalaat ba fikra mu jarrada ba xam am na laa njariñ wala amul la njariñ waaye diwu ko wax wala wala barab sàngam nañ ko waxee rek loolu amu ci solo li am solo rek mooy na eh, xalaat ba am am njariñ ci yow nga xool ko al xikmatu dallatul mu'min sallallahu alayhi wa sallam noonu la ko nga xam islam lépp lañ ci jiitu xikma bi mooy sachet xam-xam mooy mooy gindiku mooy ak njub fu nekk rek fekk ko fa waaw waaw bul bul ne ki wax yéefar la wala catholique la wala chrétien la wala lu mën doon rek xool ba xam ndax xikma ba amal na la njëriñam déet bu doon am njëriñ te aramul la jëfandikoo ko te aramul eh, yaa dënn mën naa nekk ci institution yi loolu moom du ci dugg ndax day njurum mbirum politique waaye mënta ñàkk parce que institution ñoo ñoo ngi moom a ànd waaw dañ dañ ca war a nekk dañoo war a yaante dënn seen biir xam ne mbooloo mi lañ fa nekkal yërëm nit ñi di leen déglu leen boole ci liggéey te xam ne ñoo tax ñu nekk fa damay wax ne institution bu ñu koy wax moo xam mairie la wala département la wala région la wala état la tabax yi yi ak xar yi ak oto yi de nit ñee nit ñee tax ñuy wax état kon nit ñoo da nga la a bàyyi xel te dañoo waxoon ne fukki xar benn yata leen di sàmm waaye fukki nit moom fukki yar leen di sàmm ndax message yi bokkul xalaat yi bokkul yar yi bokkul cosaan yi bokkul xam-xam yi bokkul kon foofu da nga fa war a yàddanu yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne nit ki lu ngeen def na ngeen ci boole yéene ju rafet ndax li xusni li kulli imri'in maa nawaa innamal a'maalu binniyat wa innama li kulli imri'in maa nawaa kon da ngay war di yéene nit ñu lu baax ndax yéene wolof da koy wax sax ne néegi la borom ci fanaan kon da nga non seulement ko war di def di ko wax di ko jëf mais di ko yéene boole ci yàlla dogal nag Sénégal moom doy na waar tool yi berne waaye am nañ am nañ am nañ yaante dënn lu man di xew ba léegi dañuy ñaan yàlla aaral ñu loolu sàmmal ñu ko eh, ndax fekk dañu fi fekk ñoo xam ne waa sunna lañ ñu fekk fi ay jullit fekk ñu tudd jullit fekk fi ñu ñu ay ñu ay ñu am ay tariqa fekk ñu amatu turuq fekk fi ay ay communiste fekk fi ay maoïste lu ne mi ngi fi fekk fi ay suufi nekk di suufi lu ne ngi fi waaye loolu lépp nag dañ cee war a sant yàlla te ñaan yàlla sàmmal ñu ko Sénégal da ngay gis génn kër goo xam ne ñii dañu nekk chrétien ñi nekk jullit bu dimanche ñu ànd dem tabax église ba am na ci suñ côte bi petite côte bi am na fi bu ajjuma ñu dem tabax jumaa ja ñooy tegandoo benn ndab di xeewlu ñooy ñooy jëlante seen biir di dencante loolu eh, am na réew yoo xam boo ko fooxoon dañaa la mënta nekk Sénégal am na fi président boo xam ne chrétien la xam ngeen ko Léopold Sédar Senghor lu tax sax ma ko ci politique mais histoire la que am loo am ba Sénégal ñaar fukki at li ëpp ci Sénégal yi di jullit kenn mësu ko posé parce que catholique la moo ko neex nekk a li ko boolewoon ak sëñ Fallu te mu indi coow lu bare bare mooy jumaa ji rek te lu ne wax nañ ko ci te dara boolewu leen lu jumaa ji la sëñ Fallu waroon a àggale mu am problème ñu confisqué plan ba mu bëgg ca jot bu jafee na sax yoo xam ne ci àgg sëñ Bachir mi xam ne li may wax ak man ñu baax ñi teew am na loo xam ne du waxi mbooloo waaye loolu rek moo leen boole sëriñ Fall na ñaar ñiy wut réew mi ku ci ñëw ku ci wax lu jëm ci jumaa ji ka ci des wax ko damay ñaan ka wax lu jëm ci jumaa ji am bu ko ci kenn waxul bu ci kenn am dara am na sax kilifa gu ma ñett ne ba ñu wéetee da ko da caa xam nga kafam yooyu mu daan def di jàngale mu neex ñoom ñaar ñooñu ne bu ñu ñëwee li may ñaan ci borom barak barke borom barak bi borom barak bi mooy sëñ Tuubaa li may ñaan ci bu ñëwee ñoom ñaar bu kenn waxee lu jëm ci jumaa ji kenn ki wax ko damay ñaan ki ko wax am la mu bëgg suñ ko waxee ñoom ñaar ñëpp damay ñaan ka ko njëkk teel a wax mu am li bëgg suñ ko teelee wax ñaar ñëpp damay ñaan ka ko baamu ay yoon kooku am li mu bëgg te xam naa ne kooku la gën a ñor donc nga xam ne kon li ñu tënk mooy jumaa ji rek ko ñoroon ak àggale ko te jumaa ji tolloonu kenn du ko tàmbale ba mu àgg foofu nga koy toj xel xalaatu ko Cheikh Moussa Al Karim du tàmbale dara kenn di ko toj te tabax jumaa kenn ko làmbatu loolu ko booleeg Senghor Senghor ne ko nag tubaab lu mu def ko ne fii du ma fi politique kenn baal ma ci parenthèse bi damay leeral rek fii du ma fi wax politique dama li ma bëgg su fekkee ne su ma ko amee na leen jàppale seen juma bi mais boobu jumaa sax mën wax juma lay wax juma bi naa ko am su fekkee ne su ma ko amee du ma leen jàppale seen juma bi yàlla bu moo ko am mu ne ko indi sa loxo ànd na ma yow fekk keneen kaa njëkk jiitu ñëw wax ba àggal wax lu jëm juma bi am fuñ jaar jarul mu koy wax waaye en tout bi ñëwee juma bi la tudd mu ne ko nag ne ko tuwaab tubaab lu mu def def na ci ñaar danaa fexe ba indi la copie plan bi nga àggale juma juma bi mu teg ci am lu mu ko jox ne ko maa la ko jàppale ci campagne bi bi mu toogaatee Senghor delloo ko ko ne ko def naa ko sama première participation ci juma bi loolu rek moo leen boole tuuti une littérature dégg nañ ko ci wax ju dul jeex ak lu ne waaye lii képp wen boole am na ci loo xam ne du waxi mbooloo kon bu ñu laay bu ñu bu ñu kon loolu juróom nañu ñaar fukki yoo xam ne ngóor Senghor nekk na ko fi eh, te di catholique te kenn mësu ko posé li tax ñu di jar teey kam doon mu di El Hadji Lamine Guèye di kilifa gu mag doctorant d'état jàngkat doomu ndar jullit ñëpp xam ko lañ doon réeroo te yi fi metti woon loolu lu ne xew ca dem nañ ba déggoo non seulement eh, waxuma dara déggu nañ waaye dem nañ ba boole seeni parti far fusionné UPS SOFIO yow nekkoon fële ak BDS dem nañ ba boole ko muy muy muy muy muy PDS muy UPS kon nga xam ne réew mi bu ñuy dox dox ba àgg ci gis mburoog soow bu ñu dàq mukk ëllëg fondeek soow am fondeek soow mën na fi am ndax politique mel noonu dafa am xalaatu politicien bu mag ñu wax Bismarck allemand daan wax ne politique dara ki leneen rek sax muy géographie rien n'est stable fi en politique sauf lay géographie maanaam mantiqe place bi ñu koy defee rek moo moo moo moo ci sax waaye lu nekk ci biir rek mën naa soppi ko Sénégal moom fii Sénégal lay nekk Mauritanie fekk ko nord Guinée fekk ko féete ko sud Gambie nekk ci diggante bi Mali fekk ñu penk loolu moom du soppi ko waaye lu nekk ci biir Sénégal nag mën naa soppi ko moo tax moom ci Allemagne la ko doon wax mais day day valable fu bari mu ne dara saxul ci crise géographique sax léegi mu soppi ko ndax léegi eh, dagg ci boole ci déedéet wala biir réew wala ay réew fédéré nekk benn kon daanaka comme nga wax ne la sabata fi siyaasa kon eh, lan mooy meññeetum eh, dal yaa moom day indi ak dal tànk tënk day indi ak dal day indi respect mutuel kenn ku nekk war a sama morom day indi wuute gi nga xam ne richesse la war a doon mais wartu nekk xëccoo wala noonoo ma gisee nii kii gisee nii kii gisee nii islaam am boobu souplesse waaye ixtilaaful ulama rahmatun lil umma day dooleel loolu li ñuy wax renforcement des capacités day tax nit ñi seen possibilité li ñu mën a am gën a yokk ndax yow li nga am dama ko yóbbal li ma am li kenn am ñu na mel ma nangul la ko nga nangul ma li ma am ñu seet la ñu ñun ñëpp ñu boole ko defar suñu réew defar suñu diine kon loolu euh, yaa dënn da tax ku am ku am sa xalaat mën koo wax kenn du ragal kenn ndax xam ne soo ko waxee la ko respecteel du ne rek bu ñu wax yoon ma Mamadou Mbacke wax noppil kenn du déglu déedéet Mamadou Mbacke mi wax bu seen nekk jëm Mamadou Mbacke déglu la muy wax ba xam rek am la njëriñam déet hikmatu dallatul ko muy sa la muy wax nga bu amee njëriñ ko waaye bul seet ka koy wax ak fa mu koy waxee ndax tey tey xool mbir yu kawe yi nag ndax sallallahu alayhi wa sallam inna laa yuhibbu ma'alil umur wa yakrah safasifaha am na détails yoo xam ne jullit warta am googu jot jullit dafa war a am yëkkati ko himma loolu ngeen tuddee al himma nga xam ne dangay am positif bu kowe am yitte ju kowe di seetlu lay jariñ te détails yeeg yu sew sewaan yi bu ci am soxla day tax tax nga dal day tax yaa dën day tax nga am nga am nga am jàmm politique am jàmm sa jëmm am jàmm sa njaboot am jàmm économique am jàmm international adduna sax bu ñu jaawoon dënnu jàmm am li indi coowal lépp rek mooy ni ma gisee gise ko yow wala topp si ma wala féetale ak man waaye bu fekkee ne kenn ko dañ laa bàyyi ci la nga gëm ñu respecté la ko yow itam nga respecté mu li ma gëm ñu ñu digg doomu jëflante war ma am kon jàmm rek ay am kon yaayu dënn mën naa mën naa tàmbali ci nit ki ak njabootam ak koñam ay dëkkandoom am réewam ba ci àdduna sépp yaa dënn gi mën mën na mën na mën nañu cee dimbale sunu kilifa bopp gi ñu xam ne mooy Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu bu ñu ci àggsee ak jàmm da gis ne yaa dënn ga ak bale dafa àgg foo xam ne eh, yéeme na dafa am ñaar ñuy tudd ci ba ci ba ci mu xaaw a maam sax ni mu xeexe tubaab bi dafa ak yaa gën da cay feeñ nga xam ne ba mu leen jeg ko ba ma leen fayu da leen a jéggal jàmmee jàmmee jàmmee bañ ne dafa daan wax ne sama yoon rey melentaan sax bokku ci rey melentaan bokku ci ndax mooy mooy da amul amul dara ci anuf amul dara ci violence nga xam ne ñaar ñi faral di tudd ci ci la non violence muy Mahatma Gandhi ak Martin Luther King boo seetloo sëriñ bi du seen morom sëriñ bi foofu ndax ñoom boo leen seetloo violence leen mujj Mahatma Gandhi dañ koo fetal mu yem fa mu faatu Martin Luther King dañ koo fetal mu faatu Sëriñ Tuubaa lu ne defal nañ ko mën nañ ko imal xafidil maanii yuxni anil madafii li kulli abdin xachain yatlubu xayrul xurumi Sëriñ Tuubaa nag day meneen mbir beneen affaire la soo sobare suñu borom la waaye damay wax ne koo xam ne da ne sama yoon rey melentaan sax bokku ci dañoo wax ne yi nga xam ne dañuy faral di kii di matte su ko daan laal du ko du ko faxas loolu dégg ngeen ba tey histoire bu siiw buñ ci nettali njaareem dafa amoon néeg boo xam ne dafa xawoon am ay fel lenn ci sama mbokki donc yi bu ñu fa ñëwee bu leen di matt dañuy faxasoo ko kii ak jut jut waaye sëñ bi du raf moom yi matt ak kii di bàyyi rek ñuy def la ñuy def ba am kenn ci njabootam ko ko laaj ne ko waaw waax ci daa ma lu ñu bëggoon laaj waaye yi matte xanaa ni ni ñu ko yéegi yow da nga ko dul yéegi noonu mu ne ko ni nga ko yéegi laa ko yéegi waaye loolu xam xam nga ma rafet moo ko faxas mu ne ko ah déedéet ko ñu ko baaxee woon mu ne ko bu la dara mattee nga koy faxas jamono jang koy fexe sa xel ca loolu lay nekk demi kon demi sa xel di génn ci yàlla nga xam jël benn lax laxda wala benn instant rek sa xel génn ko ci yàlla rek àdduna li ci biiram jëru ko nga xam lu ko mën di mat itam bàyyi noonu rek loolu nee nañ moo firi itam am poche sama classe ki maag sëñ Mudu moom ma doon ñaata poche la am xaw daanaka mën na am juróom-ñett wala juróom-ñeenti poche te su ma ciy dugal dara ak loxo ba ci biir mu téye ko fa dala roppi loxo ba ndax bañ mu wadd moom mësta am poche parce que mu ne boo defee dara sa poche boo koy làmb jamono ja nga koy làmb sa xel ci loolu lay nekk kon dana am instant bu génn ci yàlla te adduna nag lu tax sa xel di génn ci yàlla nekkul ci àdduna ko ci biir kenn du moom radiyallahu taala kon kooku mooy dafa neutraliser la violence dem ba violence mënatul ci moom dara far ndax amu ci dara dara dara dara te lu ne def nañ ko xal man xalaw nii fil xufar sànni nañ ko dugg nañ ko ci pour lu ne lu ne la gën a xam rek loolu bëgguma ci dugg ndax di yëngal dënd yi ndax xam nga lu ne def na ko lu ne nettali na euh, suñu maam ju tëdd ji maam Thierno bi ñu bisee ci bi ñu gisee Ndar ne ko Ibrahima da war ngeen a sant yàlla ndax dem nañ bi dikk noonu bi de lu ne na ko waaye néewu nu u néewu nu u ki ki ki ki néewul u nag waxuma daal def leneen te noonu bi lu ne jéem na ko kenn du fa yéen ëllëg jaar ruus de waaw dañ la ko kenn du fa yéen di jaar ëllëg ruus de ndax noonu bi de lu ne jéem na ko waaye néewu nu u waaye teewul dafa leen a jéggal afawtu anil aadaa'i turran li wajhi man nafaahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u ñu defaree loolu lépp nga mënoon ko fayu mënoon ñaari sa borom mu faagaagal leen faagaagal seenu njaboot faagaagal seen seen lépp defoo ko nga jéggal leen kon kooku bu ñuy wax yaa gën ak laa biir ci foofu nu mën a yem danaa ci indi yeneen misaal kon bu ñu agsee woon ci sëñ Tuubaa naka lañ ci mën a gis tuuti ci ni mu dégg ak yaa gën ak ni mu ko wanee ngir njëkkanteeg waxtu yi xasiidaam ko siiw ngeen xam mu di eh, Matlabul Fawzayni nga xam damay wax mooy feuille de route sëriñ bi waaye feuille de route sëñ ngeen bala mooy xaritu tariq xaritu tariq sëñ bi nga xam ne ci la bëggoon booba Touba nu mel projet Touba ni bëgg mel ko xam ngeen ko ba tey yéen koy jàng ba xam na ne loxo yi may sëri sax du ci ñoo xam ne seen seen <laughs> moom la ñuy jàng la ca doy mooy xam ngeen sëñ bi da ko def ci euh, uslub ñaan maanaam siratu doa ñaan te ñaan dafa garaaw damay wax ne ñaan lu tax mu mooy da ngay xam ne mooy da ngay du nit ki ñaan mooy def yàlla yàllaay def da ngay sàkku ci yàlla mu def mbaa mu bañ a def te loolu dafa garaaw yàlla mu la ñuy wax ne bu defee maatee lay signé kenn mënu ko dara innama amruhu ida ardacha an yaqula lahu kun fa yakun bu àdduna sépp la woon tam lu ca mën dara lu yàlla def loo ko ji ban bañ bañ xasal dana am lu mu doggadul soo ko dee jéem xam ne du laahu def naa la ko noonu la ko Cheikh Moussa Ka waxee dëkk boobu nga xam ne dafa nee na da ko sanc dëkk bu yàlla aar la lépp lu lu dul noona ak lépp luy tax a ragal ngir dugg ngir dundalu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moo tax mu dekkal mu tax mu mu mu sanc dëkk boobu di Touba mu cay ñaan nag boromam di ñaan yàlla musal nit ñi ci aw ayam moom sëñ Touba ay mbokkam ak i jàmbur jullit yéeg yéefar yi yàlla leen yàlla musal ci ayu sëñ Touba mu ne yàlla na yàlla musal waqi adaya aqraban wa ajnaba wa musliman wa kafiran bi zeynaba zeynab xam ngeen ko doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem kon nga xam ne fii tam ba tey ñi fi nekk di weddee ka coow naan tabarruki nit dafa aram xamuñu lu xew ndax lañuy wax lépp Sëñ Tuubaa leen gën a xam te bu araamoon mbaa mooy biddaa mbaa duñ ko def kon Sëñ lépp lu laal ci yonte bi rek tabarruk na ci ah waaw doom yaag soxna yaag téere jaag léppam léppam rek tabarruk na ca seen barke radiyallahu anhu muy wax fi nag waxi ya moom ak loram moom Sëñ Tuubaa yàlla na ko yàlla yàlla na ci yàlla musal mbokk yi ak jaambur yi ak jullit yi ak yéefar yi kon kooku bëgg bien que xam na ne amul lor waaye waxinam la ak mu ak njàngaleem radiyallahu taala anhu di ñaan yàlla mu def Tuubaa mu mel ni turndom wa ci àjjana dem ba ca biir wa salliyan alayhi afdala sala wa alihi wa sahbihi dhawi sila dem ba ca biir mu ne wa kullu man ni aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara waaw loolu ñaan la boo xam ne da koy dëxañ ci biir ndax Sëñ Tuubaa dafa xam ñaan te ñaan euh, dañuy wax ne mooy muxul ibada am na ñoo xam ne sax ak ñaan mooy al ibada yàlla imam Shatibi al ñaan mooy al ibada ndax ndax eh, salaa gi nga xam ne moo ëpp solo ci arkaan islam bi maanaam maanaam doa lay lay firi loolu jàngkat yi xam ngeen ko bu baax a baax moo tax sëriñ bi li muy def da koy def formule ñaan te te li muy ñaan mooy lu mu bëgg te am na feneen fu mu wax ne wa ma rumtuhu min malikin qaada bil ani maanaam lu ma soxla ci sama borom rek day ñëw ci saasa kon te nit ki doo ñaan loo bëggut kon li muy ñaan lu mu bëgg la te bëgg na ko ñaan na ko yàlla def na ko ba noppi waaw ndax wa maa rumtuhu min malikin te xam ngeen in qaada gis ngeen chaque euh, fi'la bi mu jël wala wasi in faala mu nga in qaada bil bil an yi ca saasa lay daldi ñëw waaw kon bi buy ñaan yàlla musal nit ñi ci loram loolu am na ba noppi ku ne xam ne Sëñ Tuubaa amul lor xanaa kay nit ki yaay ñàkk ko jublu waaye Sëñ ngay ma ngay ñaanee yàlla musal nit ñi ci loram wa kullu man ahabbani aw maala ilayya farsuquhu hudan aw maala nga xam ne da ngay xool Euh, nu mu tëyte bi ci nekk sajan bi ci nekk ak ni ngeen ko wax yéen doon ko aw maala aw maala aw zaara aw zaara wa kullu man ni aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara te baax bi ci nekk wala jinaas taam nga xam aw zaar bii ala nekk jàmm wizr aw zaara di fiala aw aw zaara nii moom moom moom ziaram loolu a ma a xam la ci gën a doy waar muy ñëw ba tey nga xam sëñ buy wax day mel ne euh, raisonnement bi ngeen baal ma ci wax li muy wax day am progression day gën a day tàmbalee ci lu lu simple lu lu woyof di gën jëm ci la gën a doy waar dem ba ci biir nag mu ne ngeen baal ma ci waxee bi de damay net li waxee sëñ bi ku ma saaga mbaa nga ŋàññi ma yàlla yàlla nga ko may ak tuub ak ak jébbalu fa wa kullu man chatamani aw laama fa hablahu tawbata wa istislaam booba réseaux sociaux yi xewagul kenn ku doon da nga xalaat saaga sëñ Tuubaa xalaatu ko waaye mu ngay anticiper di jiitu jamonoom di wax képp ku ma saaga mbaa nga ŋàññi ma yàlla ya maa ngi lay ñaan yàlla nga nga nga nga baaxee ko ak tuub ak jébbalu xam ne dafa xamul rek waaye bu xamul loolu du ko ci fekk képp ku ñaaw njortu ci man nanga ma soppeel xolam ba mu jubloo dafa xamul li xew rek waaye fi njariñ rek fi nekk fa kullu man asaa dannahu biya fali yaqallib qalbahu ya rabbiya kooku loolu fi la ya yaa dënd ma mën a mën a yem gaa yu bari boo leen saagoon baa nga ñaaw njortu ci yow bu leen jegee dañ leen ngàdd sax baa ñu ngàddul la kii dafa réew dafa ma yab dafa ma bañ ndox muy waaw waxuma la nag nga nga jéggi leen di ñaanal far kooku yaa doon ci la mën a yem daal ne yàlla na yàlla na nga musal ci seen na nga ci loru àdduna waaye na leen musal mën tamit ci sama lor nga teg fi nii ada jamii al alamin wal teg fihim adaya ya rabbi amin daal ne yàlla na ci loru seytaane ak ña bokk moom parti ak képp koo xam ne bëggul sa jëmm ji yàlla nga musal ci aw laram yàlla nga ko bijji jëmale ko ci keneen lu gaaw a gaaw ku dul man wal teg fi ni ada jamii al alamin teg fihim adaya ya rabbi amin wal teg fi ni dahra ada shaytaani wa xisbihi albaaxina fi l awtaani wal teg fi ko an ni kulla man kulla shaxsin lam yurid wajhaka fasrifu sarian id yarid képp koo xam ne dafa dafa jublu ku dul yow da ma ko dàqal ci lu gaaw mu dem ci keneen te bañ jublu si ci man kon loolu def naa ne Euh, yaa dënn ak laa biir ak yeneen ñi lu baax fi la mën a yem wax naa ko sànq ci wax yi wax ci wérd yi ne képp koo xam ne euh, wérd wu murit taalibe bi di mën di wérd moo xam murit la xaadir la tijaan wala ñeneen ñu dul ñoom dana àgg ci yàlla bu ko sellalee te dëggu ci moom ndax ñoom ñëpp ñu ci dëgg kon ñoom ñëpp la la la la nangu a imati fil fiq malik al ali am na fu mu ko waxee malik tudd malik shafii ahmad hanbali ñooy samay fiq ñooy samay imam ci fiq nga xam ne ko ñëpp la adapté ñëpp la nangu ni ñu leen yàlla defal loolu boobu tolérance ak boobu ubbeeku ci fi lañ mën a yem ak loolu lépp nag tubaab yi lu lañu def la ko jàpp la gën la sa jaboot gën a la sa biir sa biir bokk gën a la say sa liggéey jotewoo ñoom dara lu dul da ngay wax rek kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu waaye teewul ba nga noppee ci ñoom ba nga liggéey li ngay liggéey am lu ci yàlla jublu woon ba nga am la am da nga leen te mënoon fayu te fayu ko ci gën a grave mooy ñaanal leen bu dee ñaanal ñu alko rek ñëpp ñoom ñëpp ñu tali alko ndax lu mu ñaan yàlla def ko waaw waaye nag teew da leen a jéggal ñoom ñi nga xam ne dañu leen tuddi al mustamiroon wala ñu tuddi al mustadmirin wala al mustaxribin ndax li ñu ëpp isti tadmir la gën a jege ak ak xarab ci waaw waaw al must al xusa al mustadmirin waaw awil awil mustaxribin waaw xam ne te it ñaanu ko sëñ Tuubaa ci eh, eh, jéggal noon yi du woon noonu tubaab yi rek amoon nañ noonu ci biir réew mi itam yu bari lool sax duñ ci tudd kenn nag ngir war waaye bari nañ xam nañ ci lu bari amoon nañ ne waaye ñëpp la jéggal waaw afawtu anil aada yi turran moo tax sëñ bi dafa sëñ bi dafa dafa garaaw du muy waxee jéggal naa noonu yëpp nag kon bu bu ñu jàppante rek mu ne noonu yi tubaab bi laaj jublu tubaab bi ci lañ waaye ñeneen a ci woon tam nag waaw du ma ci tudd kenn waaye alhamdulilah rabbil alamin xam ngeen lu bari xewoon na fii waaw waaye nañ jég moom dafa ñaan yàlla jégal ñëpp radiallahu taala anhu eh, ma ma ci indiwaat yeneen eh, li ma tuddee al jamia al xadimiya université Cheikh al mag bi ñetti franc yoo xam ne dañoo def ay ay jëf yoo xam ne dañ ko mën nañ ko dugal ci ubbi ubbeeku gi ak yàddand gi muy al franc al ibrahim yi loo xam ne xew na ci njaboot ak maam Cheikh maam maam Ibrahima maam Thierno Ibrahima Fati ci ay tur ci njabootam xew ci njabootu Cheikh Mamadou Mourtada ci ay tur ci njabootam xew ci njabootu Cheikh Ahmadul Fadal ci ay tur ci njabootam te yooyu yëpp di foro minal minal jaamia al xadimiya kon al jaamia al ibrahimiya bi Cheikh euh, Cheikh Ahmadul bu ñu ci tàmbalee Cheikh Cheikh Ibrahim ndax mooy kilifa gi mooy waajur wi bu ñu ci tàmbalee da ngay gis xam ngeen ko ñu xam ko njabootam gi dama leen tudd radiyallahu anhu di ziare leen Cheikh Ham mu ngi ci Hamza radiyallahu anhu Miqdad Cheikh Ousmane Cheikh Khalid Cheikh Zubair Cheikh muy saxaaba ya kon da nga xam ne kon moom tajaawus na mbokk yi kete yi tajaawu dépassé na ñu ko waroon dépassé na ñun jamono teel tuddi ci saxaaba ya loolu ak yaa dënn ak ubbeeku mënu ko weesu am na ñeneen d'accord waaye ñii am na ki yoo xam ni boo ko déggee fii li ñu ko déggal fenn bariwul te ñu ngi ko jàng ci téere yi xam leen ñi bokk ci ahli badr ñi nekk saxaaba yi ñi ñeneen ñi bokk ci sax al mubasharuna al ashara bil janna waaye ñi leen tudde ay doom ci réew mi bariwul nga am beneen bu ñu bu ñu mën a jëlee beneen misaal ndax euh, loolu ah, lu ñu mën a jëlee ci faraal ibrahim yi la min al jaami al xadimiya mën nañu fa jëlee yeneen yu bare bare mais dama toll fii rek tëdd ci muy ay misaal Cheikh Mamadou Mourtada al mujahid al akbar boo seetloo liggéey bi mu daan liggéey ci bitim réew ak daara yi mu daan sanc mosu ko tuddee kër Sëñ Tuubaa kër islam la ko daan tuddee wala kër kër yàlla kër l'islam ak kër yàlla te bu ko neexoon tuddee ko kër Sëñ Tuubaa bu ko neexoon tuddee ko mooy Sëñ Mourtada mooy Sëñ Tuubaa te kon tam kenn du ko soppi kon ba léegi kër sëñ Tuubaa lay nekk wala kër sëñ Murtala waaye mosu ko wax day wax nañ kër yàlla wala nañ ko tudde kër lislaam loolu la loolu ak la ñu fekk ci këram ay tur ci yonante yi alayhim salaatu wasalaam loolu ak ubbeeku la li may wax infitaax aw tasaamuh tasaamuh euh, euh, jëm kow da nga fay fekk Muhammad sallallahu moom Muhammad la tudd da fay fekk euh, Isa da fay fekk Muusa da fay fekk Ibrahim da fay fekk Ishaq da nga fay fekk Ismail di ay yonent yoo xam ne jiitu nañ bu yàgg a yàgg Isa mooy yonentu chrétien yi xanaa ko bañ ni doo ko tuddi doom xanaa ko ko mën a wax ndax dafa bañ chrétien yi su leen bañoon lu tuddi seen yonent doomam Moussa mooy yonentu juif yi xanaa doo wax ne dafa bañ juif yi bu leen bañoon lu tuddi doomam te suñu rakk yi tedd yi baax tarka la ña fa loolu ab njàngale la jublu woon damay wane ne day fee yoo xam ne dañ koy romb te duñ ko seetlu te muy message profond bu ko adduna xamoon danañ danañ xooleen jullit yi beneen xoolin danañ xoolee murid yi beneen xoolin ndax dañ jàpp ne jullit fi mu tam moo ko takk ay bomb di rey nit ñi ka jàmmaka dégg saaga nit ñi ka ñu def paaka jàmm ñi te loolu sunu sëriñ bii woon na yoonam wi rey mel dara sax bokku ci maam Thierno lim réalise bi lan la ma si def ci violence loolu ñu ko daan tooñ rek mbokk yi ko daan tooñ sama mbokk yooyu rek nga xam ne tabarkàlla alhamdulilah kon Cheikh Mouhamadou Mourtada bu jëlee njabootam tudd leen tudd yonante yi te loolu mën nañu koy wax ci turu kër Cheikh Mouhamadou Bachir fekk nañ fa Moussa fekk ñuy ay yonant mën nañoo wax ne kon kooku da leen a bañ kër kooku euh, kon kon euh, tasaamox tasaamox amuud yi boobu laa wax nga xam ne jëm kaw dem ba ca yonante ya dem ba ca saxaaba ya kon foofu ubbi ko foofu la mën a fekk génn na ci lenn ci daara yi lii génn ci daara yi borom daaru bi bokk ci daara yi Sëñ Tuubaa yi lii génn ci daara yi Cheikh Mouhamadou Cheikh Mamadou Fadal bokk ci daaraam bokk ci daara Sëriñ Tuubaa yi nga fay fekk Cheikh Ahmadou Rafaay di borom xam bu mag boo xam du sénégalais du du du africain Cheikh Ahmadou Badawi borom tarixa bu mag yor tarixa bu mag boo ci Moyen-Orient ko fa mu am i millions yi taalibe Chérif Fanta Mali ne toogoon na fi ma toog defe naa ne fi daan waxtaanee kañ ko bu mag bi dëkkoon ci Guinée mosut a ñëw Sénégal sax kenn mosut a ñëw Sénégal far xëy na Cheikh Chérif Fanta Mali sax jamono mais ñee dañoo jàlloon bu yàgg-yàgg te du ñu yonent du ñu saxaaba te teewut am na ouverture tudde leen am na infitaax tudde leen am na tasaamox tudde leen te loolu mi ngi ko nampe ci madrasal ibrahimiya moom mu nampe ko ci al madrasal xadimiya ndax benn madrasa bi rek wala benn jaamia bi la euh, jamono ji nag dafa am lu xew lu bare bare xew na waaye mën nañ caa tënk euh, tudd rek li ñuy wax les réseaux sociaux lu bees la lu doy waar loo xam ne mi ngi bëgg tas àdduna léegi nag am ci lu xew loo xam ne moom dana am lu ma ci proposé ba dama tëj ndax liñ ciy def ëpp na yëf yi maam mën a ëpp na te mën naa ñàkk waaw mën naa ñàkk mën nañ koo faj nag mën nañ koo faj kon loolu ma kon damay dellu si kon daanaka tomb bi jiitu avant may jeexal mooy rek li ma waxoon ne day nekk ay xalaat yu ma leen di proposé gannaaw bi ma door a tëj xalaat yi daanaka ñaari xalaat rek laaj ci doon wax benn bi moom yéene nga ci maa ngi ciy waxtaan sànq ak sëñ Ahmad ne ko li ngeen di génn fii dafa am solo lool ba bu ñu sañoon da ngeen koy tënk bind ko di ko di ko wattu mu ne ma ñu ngi ci ma ne ko alhamdulilah rabbil loolu laa la woon ne xam naa ne fardu gi àgg nañ ci loolu ak ñi ñi saytu liggéey bi danañ àgg ci di ko di ko di ko denc ak support yu dul yu bokkul moo xam ay disque la moo xam ay clé USB la moo xam ay bind abi nasan nag di ko di ko ko garder ndax njàngale mu rëy rëy la dañu ci ndokkeel nag ci ubbi ko ngeen ci am ndax lii may wax tasaamu am ngeen ko ci ndax dégg naa fi sax nit ñu bari ñu fi jaar yoo xam ne seen ubbeeku moo tax ngeen nangu leen woow fii waaw loolu kon da ngeen di wane ubbeeku maam Thierno ubbeeku daaru ubbeeku islam ubbeeku yoonu murid ndax spécialiste yu dul jeex yu wuute fu ñu jógee ñëw nañ fi te loolu day dundal islam mooy kon yéen a ngay dundal loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al hikma dallatul mu'min kon loolu yéen ko ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax kon a ngi ci moom du ma ci sori yéen ngeen ci gën cee góorgóorlu gën a dajale li ñu fi wax ñaareel ba mooy dama doon proposé ñun dong yi ñu wut ay ñaari ay commission rawatina ñaari commission yoo xam ne benn bi dama ko tuddee commission d'identification benn bi ma tuddee ko commission de correction loolu mooy lan identification yi mooy gone gu réew bu tekkiwul dara toog sa kër wax lu la neex ci kilifay jàmbur ba noppi nëbbutu da ngay soit da ngay muur sa kanam wala nga wut prénom ñu wut ñu leen di identifier nga xam ne dañuy spécialisé ci mën nañ ko am ndax mbir yi lépp ngi ci fii taal bii ñu fi nekk lu nekk ngi fi daaru capacité yu ne am nañ fi mën nañu fexe ba identifier leen ñi koy wax suñu ko identifier nag beneen commission ba leen di ko corriger rek fekk leen fa am fu njaar ak ñoom ndax ñi tontu ci xam-xam ñi ngi tontu waaye dafa am baadoolo yoo xam ne li ñuy def du xam-xam jëruñu tontu ñaari rek ñoo ñoo ñoo ñoo fi nekk débat ak duma ah débat ak duma kuy wax lu baax nag di wax lu lu mën a dégg mën nañ laa bàyyi dafa ak yow débat waaye ku ya ku yaradi ko wala nga soxor wala nga añaan wala nga reew dañ war a duma yoon wi biñ bàyyee duma rek la ñu bëgg tàmbali yàpp te duma gi ci la dafa am ñu tekkiwu dara ñoo xam ne foog duma rek mooy tax parce que jëruñu duñu nawle la wax du xalaat parce que ki ko yaram mooy ki wax idée idée boo xam da koy défendre di ko argumenter kookaa jaral wa sallam copp dañ koy wax rek maa ngi seetaan idée yoo xam ne ka koy wax cosaanam jullit la lam ca bëgg a saxal mooy yonent bi amut Muhammad n'a jamais existé ay imagination la ñu def rek di ko jéem a argumenté nga xam ne yooyu dañuy dañuy wax ci sëriñ beeg njabootu sëriñ beeg nit ñu baax ñëpp ne dem na ba mam mam koo xam ne sëriñ Bachir loolu di ngeen ci war a taxaw ngeen fexe wut commission d'identification ku fi waxati loolu noonu ñu fexe xam la bu ñu la xamee nag am fu jaar ak yow dootu nekk débat parce que boo leen ay ragal lañ bu xat yoo xam ne kenn ñi mu ci débat ndax li ñuy wax gëmuñu ko wóoluñu ko dañoo bëgg wax lu ñaaw rek it nag da ñoo xam ne dañoo bëgg dégg borom xam-xam yi àdduna ñu tëgg ko ci juróomi nit ibnu taymiya albani ibnu baz ibnu uthaymin muhammad ibnu abdullah eh, ak ak ak ak ak ab muhammad ibnu abdul wahab am na ñu koy def duñu duñu yëpp ñii ñu baax lañ ñun duñu wax mu kaddu gu ñëw jëmale ko ci ibnu taymiya mbaa ci albani mbaa di ibnu uthaymin mbaa muhammad ibnu abdul wahab ñu baax lañ borom bi xam-xam lañ waaye ñeneen ñu baax a ngi fi yow na nañ leen nangul seen baax ak seen xam-xam nañ ñu nangul suñu baax ak suñu baax ak suñu baax ak seen borom bi xam-xam waaye saxawul albani saxu cheikhul islam ibnu taymiya ku dul ñoo ngi rek doo dara ma sori bakkan ak yu kenn xamul ñoo ñun waaru nañ bu yàgg waaw ibnu baas ku baax la ibnu taymiya ku baax la ibnu baax la muhammad ibnu ku baax la waaye ñeneen a ngi fi ñu baax maam cerno ngi ni ku ko gën sëñ daam abdourahman a ngi fi ko gën sëñ mat jaw paxa ko gën sëñ sëñ sëñ matar bintaloo ko gën sëñ mbàkki buso ko gën sëñ mat lamin jóob dagana ko gën sëñ afiya mbàkki sëñ mohammed dem ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci madrasal xadim yi bii lañ génnee ngeen leen fi ñukk nag di des duñ dara tekkiwuñ dara xamuñu dara lu Ibnu Baas wax rek lu kii wax rek mooy am loolu foo ko teg te ni ñu koy waxee ci sëriñ bi noonu ñu koy wax ci ñeneen am na ñoo xam sax la fi ñuy àgg ak ñeneen ñu fi bi te kenn ci ñemewul débat koo ci ne kaay toog ñu wax mu daw ndax li ñuy wax teguñu ko fenn sarax bi ñu leen di jox rek ak xont ba lañu la ñuy duufal xont ba rek ndax ñoom ñoom ñii ma wax dañoo ami taalibe yu am pétrole di leen xont saa bu ñu teggee xont bi rek baa ñu wàññi ko ñu ñu wat sikki bi mbubb yu mbubb yu cëkk yi saa bu bi wàññi ko rek ñu dërëm bu mbubb yi bi ñu ñangal saa bu xonte ko rek ñu wat sikkim bi te ña di xont ña leen di xont dégg nañ ci bu yàggul koo xam ne dem na jënd équipe football ay milliards Mamoun Mbacke mii di wax ak yéen li muy ñàkk ñàkk solo mosuma dugg stade man waxuma laa di di jënd ab équipe te ku ma gisoon ci stade bi mag sëñ Bachir bi nga ne ah waa sama gars lu xew sëñ Bass dama ci stade ba waxuma laa nag dem jënd équipe équipe football ci ay milliards ko te xam nañ ko waaye nag ñoo yor xont bi boo ko tuddee rek ñu dagg xont bi ah kon nga xam ne da ci am yoo xam ne ay la du xam-xam du jub du bëgg lu baax reewande la ak soxot bu ko defee sëñ Bachir bis bu ngeen taxawalee comité de correction nga xam ne la ñetti temps yi da ngeen di fexe ba kiy wax mooy kan ndax booy wax dara te ñemee ko feeñal kenn kenn téyewu la di waaye da ngay dugg sa néeg wala nga dugg sa kii eh, enregistré lu neex wax turul président wala nga muur sa kanam saaga wax lu ñaaw denc sa bàyyi ci côté ci saaga bàyyi jàpp denc sab sëriñ di saaga sëriñ jàmbur loolu du mu xel nit nit ku ñu sax du ko def te dafa xew fi ne ba nga xam ne dafa mel ni dafa màmm li koy saafara nag mooy duma rek da ci am ñoo xam ne boo leen wooyee débat du ñëw fexeel ba identifié ko fekk fu mu nekk duma ko soo ci duma kenn ñaar rek dootoo dégg ñu wax ñu baal ma ci waxee nag waxi waxi waxi waxi waxi waxi waxi daanukat rek da ci ànd léeg-léeg waxi daanukat rek ndax àdduna suñ bi àdduna si yëf yi dafa ëpp fi mu ne waaw dafa àgg foo xam dafa ëpp maslaa mi dafa ëpp nopp ji dafa ëpp te mën naa saafarawu lu yomb yomb la mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu ngoog mu bu ko defee rek ñu ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax bëgguñu ci gën a xaabawal ndax yëpp yu fi daan jege xanaa li ñu tëjee rek sëñ bi ndax bëgguñu jotaay bi a yàgg eh, sunu sëriñ ba Cheikh Mouhamed Fadal dafay mës a ñëw am ñaari bayit yu ñu defoon ci maam Thierno yàlla anu ma gis ko jamono yi nag man tam ma jéem a man sax du ma waykat waaye dama dem daaxi léeg-léeg ma barkeelu ci loola man tam def ay bayit xam nga xam ngeen ñaari bayit yu siiw yooyu ngeen xam ataytu ila almiataai fi daarihi lmoti li yashkuwa shakwa alqabdi minni bilbasti xamidi alxisaali thabiti aljashi ummatin xalifi nada fi xaalayi alxasbi walqaxti waaw loolu de ngeen ko ba tey sëriñ Fall fa ñëw ne fi ne damaa ñëw ci tab bu mag bi ci këram gu ci këram gi mu daarul mawti ngir sikk euh, ngir jooyatu ko jafe-jafe jamono ak xat-xati jamono ndax moom lu jamono xat-xat tam rek moom mi ngi tax tax koo mu ne kii ma ñëw nag ku rafeti jikk la léegi dañ ko dañ ko wate ku jàmbaareel wax bu fi ko xam ko ah, wax tey de ko dañu ko dem fekk benn dëkk boo xam ne dañ fa jàpp juróomi téeméeri jigéeni française yu toll diggante ñu rendal ñëpp xotti seen biir mu ne ko waa góor diw ma ñaalaw fas bañ taalaw fas ah <laughs> a tudd waaye mu ngoog bokk kon kon li may wax ko am la kon naka ndax ñooñee lu tax xam lu mu ne ko am na ñooñee kat eh, eh, eh, seen maam ya lañ bëgg sama sëriñ bu ñu ko amoon dama toog fii tey bàyyi sëriñ sax wax na ko xamoon naa ko Daaru Salaam may na loolu nga mu ñett dama dañoo jigéen fi xam li may wax di damay kaajee yàlla rek dañoo jël juróomi téeméeri jigéen yu tollu diggante ñu rey leen xotti seen i biir mu ne ko waaw góor almaay yow ko def tubaab mu ne ko waaw góor dana la may naa law fas xam nga lu tax ñooñee kat la seen maam yi li ñu bëggoon sama sëriñ bu am dama toog fii tey mel nii mu mel wala léeg bu ñëwee wax ko mu ne ko may naa lam sàq te góor gi ne dem dégguma dara kat damay damay kàjji waaye réaction bi ngay xam bëgg sëñ Tuubaa ak ni mu réagir xam ne kooku bu fekkoon fu ñu waxee sëñ Tuubaa lu du noona ab armée lay formé ab armée lay formé kon waaw du du yem ci rek du ñu identifier ay kii waaye day armée lay formé ndax dana ko saafara léegi ni ko sëñ Fallu xam ne ko saabitil jaashi waaw saabit ummatin fi xaali al xasb wal qat yi day ku dëgër koo xam ne nation la aw xeet la ak ci yaatoom ci xam-xamam ci yàddandam umma la inna ibrahima kaana ummatan yàlquran waxoon ci turandoo mu tedd wa la sëñ Fallu def eh, iqtibaas fii xalifi nada fi xaali al xasbi wal qat dafay dafay taqo xéwal moo xam nawet mooy noor nga xam la waykat ba dox rek tooye nawet la tooy tooye noor foo dëgg foofay bucc waaw maam Thierno dafa taxu xéewal loolu ak cant la te loolu li ko may mooy liggéey loolu li ko may mooy positif loolu li ko may mooy yitte ju moo tax ma barkeeloo man tam nag ca ne dama ñëw ci dëkk bi nga xam ne eh, eh, dama damay sant yàlla dama koy tënk ci wolof door ko door jàng xasida rek tëje tëje ko dama wax ne rek eh, yàlla mi borom aras di borom bindee fii moom lay sant ci moom lay wéeru di julli di sëlmal ci soppe ba ka nga xam ne mooy boroom jàpp ndal ga dañoo ñëw tey Daaru Musti bi nga xam ne ki ko tabax mooy kii mbokkam lu baax axul birri mbokkam lu baax Cheikh Ibrahim bi nga xam ne yoonam wa mooy yoon wu jub wa mooy boroom xam-xam ba mooy fóore ja mooy ku tedd ka mooy ku yaru ko te mën a yare mooy liggéeykat bu mag ba mooy tabaxkat bu mag ba nga xam ne lim tabax kenn yi dafa dëgër te sax mooy ki nga xam ne moo yoroon secret sañ Tuubaa yi sëñ Tuubaa mu tedd mi mooy ki nga xam ne moo yar mbooloo mu dul jeex ci ab bopp wa tatqiq njàng mu leer njàng mu set njàng mu sel sell Cheikh Mohamed Fadal daan wax waxam ji siiw jooju ngeen xam ak sama mag ju baax ja Cheikh Ibrahima dañoo yar dañoo jàng dañoo dañoo yar bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yoñu bañ na jar mu ne ko xuma ci len de waaye waaye waaye saja saja bi mu mokk na saja bi mu mokk na dañoo yar bañ na nar mu jàngal ñu bañ na ar mu yar ñu bañ na jar ah, te te mbooloo la ko defal ñoom ñaar rek dafa tudd da ko tudd boppam tudd Cheikh Moustapha waaye mbooloo la ko defal moo tax ma ne dafa jar mbooloo mu dul jeex dafa créer ay projet ay ay ay tool ak liggéeykat yoo xam ne dafa barkeel te ànd ci développement adduna ci ci barab boo xam ne daanaka dafa dara ne ko foofu loolu ay garab doy waar rek kooku nga xam ne mooy përëgum Serigne Touba ni mu ko waxee adudel ay man moom lañu ren ci bëgg sëñ Tuubaa al adadul masbux fi xubbi cheikhina sëñ bi ko wax al masbux fi xubbina la ko sëriñ bi wax eh, kon mooy për përëgum ndey joorum sëriñ bi mooy jàppale sëriñ bi la lam yu xaalif nii laa fi saxarihi wala fi kibrihi am na fu ko sëriñ bi waxee waaw kooku nga xam ne nag bi mu koy bi mu koy mooy suñu modèle maanaam bu ñu wax murit model bi mooy Mame Thiarno bimtiyaaz loolu ma koy wax surtout fudul fii bu ñu doon seet ku génn ci madrasal xadimiya awel jaamial xadimiya bimtiyaaz Mame Thiarno la ñuy wax ma am na ñeneen ci génn ñu bare bëri waaye bu ñu ko tuddee rek mu doy sëkk ndax sëñ bi lim génn lépp ay tànneef lañ waaye bu ñu doon tudd tànneef bu ñu tuddee ci ci yem moo tax mu ne euh, an namudajul akmal ku ku ku ku xam boppam la ku ku ku jàmbaare la ku xereñ la ku ku taqoo xéewal la dafa ba sowe woon na France maam Cerno sowe na France xam nga li ma bëgg a wax am na jamono France am problème alimentation ki yëf ay sàqal li jox fi yoo xam ne moom la armée bi dina ak nit ñi Euh, nit ñu baree bari mooy ki nga xam ne moo yor moo moo wattu secret sëñ tubaab yi moo doon aar njabootam moo leen wëroon ak secret boo xam ne sopp leen ak bëgg leen ak ñewent leen la leen téye ba sëñ bi dem ba dellu si te te te dara mbooloo mu bari génn ci génn ci génn ci daaraam bi ñoo xam ne dañoo génn ci daara ji jub dem di juble ñu ngi yaroo nag ci géej gi nga xam ne waajuram bu jigéen mooy soxna Faati Faati kooku dama ciy naw bu baax di di ndokkeel sëñ euh, Bachirou ndax téereem bi daf ko tuddee Cheikh Ibrahima Faati fi ayaamihil xaalida may wax ne loolu da cee am jàngat bu ma ci def ci ci titre bi rek ndax xam nga euh, culture arab day culture zakari yi maanaam dañuy favoriser góor arabe kenn du ko dakkatal ci yaayam. doo dégg fi ne mukk nga dégg ñu ne Muhammad ibnu euh, euh, euh, ibnu Xadijat bintu ab Xadijat ibnu Amina Muhammad ibnu Amina bintu Wahb doo ko dégg Muhammad ibnu Abdullah rek ngay dégg te pourtant Xadija ko jur Amina ko jur de te siira dañuy wax ne siira li muy li muy bari bari ñaari mbir képp la ci téere yëpp d'accord muy moom ku tedde ko sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ñaareel ba Xadi Aminatu bintu Wahb mooy yaayam yi ci des yëpp am nay Abdullah baay jeeg màkk gi mu juddoo fi mu bokk ak bis bi mu juddoo ko weer weeg lépp am nay wuute waaye li ci ñëpp d'accord mooy Muhammad la tudd te Xadija bintu euh, Amina moo ko jur mais doo dégg ko ci dàkkantal parce que euh, culture arabe la xam nga ni ngeen ko xamee seen seen euh, Bachir yéen jànkati yi ci culture arabe pure am na lu ñuy wax tanriya nit ki boo ko ne yab na fulaana ci arab day mel da nga ko xaw a saaga maanaam bu tuddee waajur bu jigéen ne ko doomi jiw ji que ñoom pour ñoom nit ki góor lañu ko war a dàkkantal waaye kenn war ko dàkkantal jigéen te jigéen ñi nag am ci la ñu nag soxna yi su yéerool bu rëy rëy ci liggéey bi suñu maam suñu maam tedd ji di kilifa gu rëy rëy dégg ngeen histoire bi xam ngeen lu ci bari loo xam ne buñ ci doon taxaw fii ba suba kon dàkkental ko ci te jigéenwul maam Thierno nag ndax mag ñu baax ñëpp dañu daan dàkk rek seen waajur jigéen sëñ maam Mor Diarra maam Cheikh Anta Thierno Ibra Fati Bàcc Anta Ceebo nangam nangam nangam Fallou Obuso Moustapha Aminta mu ngoog sëñ Mouda Aballa sëñ Cheikh Aballa <laughs> kon loolu fi leen ko fekk mu kon bu sëñ bi conservé boobu topp dawuluk arab xam ne ñu ne ay jullit lañ ñu am culture arabe lañ mais duñuy arab parce que arab kenn dakkatal kenn ki sa waajuru jigéen kon loolu mu laxasa bu mën a def rek nag au passage waaw waaw macha allah euh, ma ne ki may wax na def day boroom xam-xam di boroomi liggéey di borom ji yitte kowe lool di boroomu jub di ku xam boppam ku ku ku ku ku digg doomu ci li muy def kon maa ngi ndokkeel kon waa ahlul wafa ñun wafa ñu ngi xam ne yéen seen liggéey bi liggéey bu rafet la liggéey bu barkeel la yéen a ngi dundal loo xam ne dañuy ñaan rek chatat bu ci bu ci dugg maanaam ak gàttañlu ak aku aku ak aku aku gàttañlu ak ñàkk mat bu mu ci dugg nañ lu ñuy garder bu faw di ko di ko fawe bu faw di ñaan yàlla mu barkeel te aar Cheikh Ibrahima ak njabootam gépp moom mi nga xam ne mooy moo tëqoog maandu ak xalaat li wal xisti di julli nag di salmul ci ki ngeen ji bindeef ki gën ñëpp te moo doon maxduume xibbi xibib ni maam faati moo doon moo doon ki maam Cerno bëgg sëriñ Tuubaa doon moo mooy maxduum sëriñ Tuubaa xam nga sëriñ Tuubaa mooy xadim mooy xaadim waaye alayhi salaatu salaam mooy al maxduum mooy maxduume xibbi maam faati xibib ni maam faati dama cee xaw a dugalale baatu wolof kon Cheikh Moussa dafa waxoon ne ataytu ila almitai fi daarihi almaati li yushkiya shakwa alqabdi minni bil basti xamid alxisaali thabit aljashi ummatin xalifi nada fi xaaliyi alxisbi wal qaxti ma barkeelu ca man ma ma dabb daax yi barkeelu ca ne li dil arshi li dil xalqi rabbil arshi xamdi wa malja'i salaati wa taslimi ala alxibbi dil basti atayna ila daari allati shaada sharxaha axul birri ibrahimu man nahjuhu alqisti huwa alaalimu alnahriru alkarimu almuhadabu kata alaamilu albaali aljadid almarabiti مؤسس مشروعات يمن وتنمية بمنطقة كانت غطاءاتها القحط هو العدد المذبوح في حب شيخنا نموذجنا الأكمل بخلق التوسطي محافظ إرث الشيخ حامي عياله أو حامي عياله يعني ابن نجيب غشاهم بحب خالص سره الربط وجمع غفير عالم أرشد الملا تربوا بأيدي البحر من أمه فاطئ fa ilmun wa amalun wa himmatu chimatin rachadun ibaun ifatu nafsi wal wasti hani an lana ahlal wafa azza saayukum bi ihyaai chanin la manaha xifduhu chat fa yaa rabbi barik waxmi ahlan mahamidi huwa cheikha ibrahima axal adli wal qisti wa salli bi taslimin ala xayri xalqihi ajadil wara maxduumi xib ibni ibni maam fati wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina mawlana wa habibina muhammadin wa ala alihi ñu ngi jégalu nag ndax eh, xaw nañoo jël yu bëree bëri ak gaawantu ko ndax doon sàmm waxtu wi ak toogaay bi rek ñu ngi jégalu ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkk ñëpp ñaan ba axiru naa ba axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Mouhamadul Mamoun ci eh, thème bu am solo bi waxtaan bu am solo bi nga xam ne andi nga ko te muy yaa dënn te muy lu am solo loo xam ne yaakaar naa ne kenn ku ci nekk boo dégloo ni mu ko teqantelee yaakaar naa ne mën nga cee jàngate lu baree bari bari tàmbalee ko ci fi nga nekk ci réew mi ma ci mazhab yi ci tariqa yi ba ci euh, biir famille mbokk yeeg yépp sax lu ne tudd na ko ci kon tubarkàlla ñu ngi lay sant bu baax a baax baax ci turu mu assasul Wafa xam naa bala ñoo jox sëñ Abdou Samad ngir mu àndi ay yokk ci lii nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaane dañuy fàttale rek ne semaine bii di ñëw suba insha allahu taala ci aljuma bi daañu dalal docteur Mbaye Thiam mu war a ñëw ak ñun ci annizaamul xabal yi maanaam doxaliinu buur yu njëkk ya annizaamul xabal yi almalaki yi ak sénégal yi Euh, ci euh, gaawu bi al imaam Assane Seck dana ñëw waxtaan ak ñun ci al i'jaazul qur'aani waaw mandarga yi wane ne al qur'aanul karim mooy téere bi nga xam ne xar baax la nekk bu al qur'aan nekk di xar baax euh, ñuy xamal mbokk yëpp itam ne leen képp koo xamante ne bëgg ngaa topp jataay yi ni ma ko waxee woon sànq mu assatul Wafa yi sos na benn télégramme boo xam ne mboolem waxtaan yi nga xam ne. dafay mës a jaar 2006 ba jamono bi ñu toll muy tey jii incha allahu ku ca inscrire muy daarul moxti al wafa daarul moxti mën nga ko am euh, rajo yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir réew mi itam gàttañ li woon ci waxtaan yi di ko jàllale tàmbalee ko ci rajo daarul moxti bi direct la koy def te suba incha allahu taala euh, bu ñu jullee tisbaar dana ko jàllale waat Zik FM moom tamit dana ko jàllale 14h 15h Walf dana ko jàllale 19h jant bi 0h. i rajo 18h30 RTS Diourbel 13h30 Benno FM 17h Sud FM 20h30 Lamp Lamp FM 23h30 wala 23h UCAB FM dana ko jàllale 9h ci suba euh, rajo bambay bi dana ko jàllale itam 22h su ko defee euh, rajo bi nga xam ne moo nekk ci Kébémer itam. Euh, di daara ji FM moom tamit da koy jàllale Carrefour FM 20 la koy jàllale moom tamit waaw Touba euh, su ko defee si euh, chaîne YouTube yi nga xamante ne moom tamit day jàllale waxtaan yi mën nañ cee lim itam Touba Vision ni ma ko waxee woon sànq Baye Darou Média xam sa réew TV Bichri Al Khadimiya Bawal Média Al Wafa Darou euh, Facebook bu Al Wafa bi itam da koy def direct Touba TV itam dana koy jàllale guddi gi. waaw incha allah moom tamit da koy teg Lamp Fall TV itam da koy jàllale une heure quinze kon jumtukaay yi yëpp képp koo xam ne waxtaan yi raw na la mën nga ko cee dab dabaatal du tey itam boo ko soxlaa boo ñëwee ci ñi nga xam ne ñoo yor wàllu googu ci mu assasa mu assasa bi incha allahu da ko mën a am kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci turu mu assasat Wafa yi di wane mbégte gu rëy gu ñu am ci waxtaan wi nga doon waxtaanee te muy loo xam ne euh, jamono da koo laaj. jamono da ko laaj ci wàll bi baree bari kon xam naa ni ñu def mooy eh, dañu jox sëñ Abdou Samad su ko defee incha allahu taala mu andi ay taxaw seetloom ci lii nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaane su ko defee bu ñu noppee ñu jàllale laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan bi incha allah. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëñ bi sëñ Modou Mamoun ñu ngi lay nuyu baax ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay ndokkeel di lay ñaanal jàmm bu baax a baax di ko sakku ci yow. di am mbégte ci sa teewaay fii yow fii nga teew ci daara ji daara ji sa daara daara yi borom daara ci sa daara la ndax sa wayjur sëñ Falilu moom moo ko sos ci njëkk génn ci daara ji ci la bokk kon daara ji ci nga bokk thème bi nga tànnit wax ko fi day dafa tolloo ko ñor ko wax ci jamono ñu toll nii te saamu euh, li jariñ ak ñàkk ko di lu ñu wàññi fii ne booy seetlu ci àdduna bi musulman yi sonn nañ lool xat nañ lool li ko def mooy ñàkk tasaamu ñàkk manque de tolérance euh, ñàkk tasaamu dafa indi euh, euh, dafa indi tataruf waaw tataruf comme ni ko waxee sànq da ngay gëm dara bàggal bàyyi ki gëm mu gëm la mu gëm bu ko defee ngeen mën a ànd waaye li ma gëm rek moo war a nekk li li kenn gëmut wurtu nekk kooku mooy tataruf loolu ñàkk te sax moo ko waral suñu borom def na nag ñoom euh, ñaan ak Sëriñ Tuubaa loolu Sëriñ Tuubaa def def na ko ci ñoom ndax ci moom lañ ci moom lañ ko jànge ni ko waxee léegi ni ko tubaab bi toomaale ni ko tubaab bi tooñe yàq dundam gépp ñu sànq ko ci bi baare ko ba li mu waroon mën koo def na ko bëggee woon te teewul mu jéggal leen ci at yi passé rek dafa am benn kilifa ku ñëw ci Sëriñ Saliou jamono Sëriñ Saliou ne ko léegi ñi tubaab bi tooñoon ci ginnaaw ñu ngi delloo histoire yi pour porter leen plainte ñu at ñu attewaat leen léegi sëñ Tuubaa comme gannaaw dañu koo tooñ <coughs> dañoo bëgg ñu <coughs> ñu ñu porte euh, plainte français yi sëñ Saliou ko am loolu suñu ma ko ndax kii ñu tooñ mu leen jéggal gannaaw sëñ Tuubaa lañ tooñoon ma jéggal leen ñu suñoo dëkk dëkk dëkk ay ay plainte ak nangam nangam waaw ah. kon ana tasaamu daal mooy boo gisee fu ñu nekk yaatu fet looloo ko waral waaw ah, boo demee nag Amérique def nañu seen seen def seen i jàng def seen i daal def seen i màggal te kenn xatul leen waaw fekkoon na dañu am tasaruf am taasub am seen biir kon du leen ko may kon li gën ci euh, nit te suñu suñu toit def ko ñoom mooy mu am tolérance li nga nekk nga gëm ko jàpp ko sa fukki loxo li keneen nekk nga bàyyi ko loolu mooy li lépp solo li nga wax sànq tam ci sëñ Tuubaa ci ci ci tasaam boobu bi mu am mooy dañu wax ne benn bis daa am ko toog ci wetam dafa naa sëñ Balla Fall jàng yaakaar naa ne sëñ Tuubaa yor benn kaas ne ko kaas boo këppoon suuf rek fu nguuru tubaab nekk daana daal euh, sëñ bàyyi na ko te nga ko def mbàkk wala nga wala nga jox ma def ko sëñ Tuubaa ne ko ëpp naa def ne ko koree sa mbaam ci àll da nga yoon sëf jamono ñëw ci kanam joo xam ne dañu aajoo xam ñoom ko ñoom ko indil bokk wax nañu ne bind tam sëpp daaji yëkkati ne xalima gi ak am weñ tong ci xalima gi di mu téye ko nu nu bëgg koo dàq tab bu naan waaw loolu tasaaba ca la ca bokk boo gisee mu ñaan itam yërmal bind fépp yarham jami la war a waaw loolu fu fu la ngir mën a yem loolu kenn mësu ko def ci àdduna Sëñ Tuubaa dafa xam ni ñaan dafa xam borom daa xam fi nga koy jaar waaw bu ñaan ci am ak ñàkk it ngeen ko defe waaye seen juudaa makaanal boo xam njëkk a wax doon wax ne ma wàllu seen ma wàllu seen xëy na ma kër faqri nag ma def ma tabe te bañ maa def ku nay doon ne borom nag nag ma def ma am te bañ doon ku ñàkk. sëñ borom nag ki ko jox moom ki di ñaan ki amagul dara di ñaan tabe ko jox moom kon sëñ Tuubaa daa xam ne daal mooy li gën ci nit sëñ Tuubaa def ko ci ñoom ñàkk koo def mooy tax tarf musulman yi sonn nañ fu ne ñàkk fa ñu nga fi xet fu ne ñàkk la fi dàq dégg nga Macron wax na bëgg dama ne musulman yi nekk euh, France ñoo yàq seen bopp ndax dañoo reconnaître reconnaître nguur France ci boppam loolu tasaamu ko indi kon sëñ bi li nga wax léegi ci tasaamu lu am solo li wax ci ci réseaux sociaux yi dafay lu am solo ndax toog ci barab aar sire saaga sëriñ jàmbur saaga bàyyi jàmbur te damay wax ne nit ki li mu gëm moo ko gën a léppam nit jot la am yu mu gën a fonk ndayam bàyyam ab sëriñam ak njabootam alalam ñun ñëpp a ci yem suñu njaboot ak su jëmm suñu tubaab ñu gën a kon pare nañ jaay lépp li ñu am ngir sëñ Tuubaa kon ki ki ki koy laal mu ngi laal mu xam kon jéem koo teg ci yoon. yëm leen di topp bañ xam ñi ñu ko def yóbbu leen ci yoon atte loolu la mu soxla ki mooy américain bi doon bind jox euh, Wikileaks ki ki ko génne ne euh, tey ko dañ ko dañ ko delloo américain te bu dee démocratie rek waaye lam daan xas franc américain yi Wikileaks di wax ay mbóot di génne secret d'accord nañ ci delloo ko américain yi ba dee sax atte nañ ko bu ñëwee nañ ko atte bu fekk téeméeri at ak juróom-ñaar fukk lañ ko teg 170 ans kon limité nit ñi seeni wax mënut a ñàkk aw askan moom bu fekkee lu neex waay wax lu neex waay def rek musiba la jëm li ma jaaxal moom am na ñoo xam ne bu leen xasoon tey tey tey balaa am wet balaa am wet ka sam kon da am nañu seen seen seen ginnaaw di leen encouragé ci loolu kon loolu nga wax suñu maam propos boo nga wax moom man d'accord naa ci jàpp nañ ci dañ ci d'accord tey tey tey farata la waaw làmmiñ des koy tënk ku bëgg a wax bëgg bëgg a def débat ñëwal ne man maa ngi nga dem ci gaa yi wax ak dama lii laa gis dinaa koy kontaan nga toog ñu toog waxtaan ak yow waaye toog si bokkee mas ko di saaga ak wax loolu loolu mënuñ ko mënutuñ ko tooñ sëñ bi daal moo ñu gën suñu lépp moo ñu gën suñu jëmm moo ñu gën suñu doom moo ñu gën suñu alal jaareen lépp ngir moom pareen lépp ngir moom kon lii moom nañ wax fexe ba ndakk waaw kon daal jàmm li ko indi mooy kon daa yem fa nga war a sëñ bi daal li nga wax ci ci euh, euh, waxtaan wi dañoo toll jamonoom jamono tolérance ndax ñàkk koo def tasaruf tasaruf dafa dafa yàq nit ñi murit yi dañuy wax ne ñoo gën a ñoo gën a mën a représenter l'islam ci àdduna bi leen ko may mooy mooy tolérance ña nga Brésil ña nga Argentine ña nga Amérique ña nga France ña nga def lu neex ci jàpp kenn bariwul mooy dékku ak nangu autorité ñoo fa nekk ak nangu diine kese moo la may loolee kon lii ñu sëñ Tuubaa def ci ñoom dañ fexe ba garder ko kon sëñ Modou Mamoun waxtaan am na solo lool ñu ngi sant di la ñaanal damay wax ne léegi-léeg sax da ngay xaw a waaye nag boo demee ba am am ñu si rek si xel si xel gën a dal ki yow nag ci suñu ko ci nga bokk yàlla yàlla yàggal la te yàlla guddal sa fan asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaan irajim bismillahi arrahmani arrahim wa rahmatullahi mbokk ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wu sell wi di leen ziar sëñ Modou Mamoun ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jërëj jërëjëfal ci turu mu assasatul wafa bi xuquqil imaan di ñaan yàlla mu guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi laaj sam xel tomb bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe déglu nañ ko bàyyi nañ ko xel bu baax dégg nañ ci lu bari itam wolof day wax ni seedes mbay dàgg waaye dégg nañ ci lu bari ci ni tasaamu am gum am solo ak indigoo ci indi ay misaal yu bari jaare ko ci sunu mag ñu baax ñi cheikhul xadim borom daarul mooti ndaw ñi doon la ñaan loolu di tasaamu loo leen di labiré ñu ni ngir jikko jooju muy tasaamu ñu gën koo mën a wéyal bu baax ndax fii nu toll dënn yu bari xat na xol yu bari itam xat na ñu doon sàkku rek loolu leen di labiré ngir tasaamuq boobu ñoom tam ñu man cee man a man man ko man ko jikkowoo waaw loolu di xam naa salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant Cheikh Abdou Samad ci kàddu yu tedd yi macha allah dafa baax rek waaye moom bu fi nekkee waruñoo wax dara sax dañ ko war a bàyyi lépp rek mu wax ko macha allah ndax mate na ko sëkk Cheikh Abdoul Bachir dama ko jëlale moom bu fi teewee moom ñëpp dañoo war a noppi jox kàddu gi rek waaye ak baaxam gis nga ko tax na ba nangu la wax sax kon ñu leen di sant bu baax a baax di sant sëriñ bi ci commentaire yi loolu de xanaa ci gàttal rek gannaaw yëf yaa ngi jege eh, li koy gën a saxal mooy xam naa bu ñu fexe ba gën a xam diine ji rek gën a xam diine ji rek ndax mag ñu ko suuxatoon saxaat ko dañoo xam seen diine xam ne islam dafa am dépassement ci yu baree baree bare am na yu bari yoo xam ne def ko ñàkk xam rek la ndax sallallahu alayhi wasallam ba ba mu demee Taïf ñu boole ko ñu wayee dee ñu koy sànnee xeer ak yuuxoo ko def ba gaañ ko dama ne allahumma ixfir li qawmi fa innahum laa yàlla na nga na nga gëral na nga jéggal sama nit ñi dañoo xamul rek waaw sëriñ Tuubaa wax ko ne law alima naasu maa huna law alima maa huna la baadaru ila talabihi walakin lama jahiluhu talabu gayrahu nit ñi xamoon li fi nekk kon ñàkk xam rek la damay xam ni banque gi ak tëju gi ak xatal dënn gi eh, eh, eh, ñàkk xam rek la ndax ndax xéewalu yàlla yi du jeex mayu yàlla gi du jeex loolu boo ko xamee da nga cay da cay yaatu dañuy wax ne asamaan si kenn du ne xool may may ma ma xool asamaan ñëpp ci xool ba ba jeex rek te yàlla li mu yor du jeex koo xam ne li mu yor du jeex nag lu te te xuloo ak werante la Sëñ Abdou Lahad Mbacké moo xam ne ñaar da koy waral xëccoo daraja mbaa xëccoo njëriñ daraja moom loo ci am am am du yàgg ab diggante bu bu bu gàtt la nga ñàkk ko alal njëriñ loo ko am lu mu bari bari bala yàgg tuuti nga ñàkk donc lu yàgg amul njëriñ la boo toogee tuuti da nga ko ñàkk kon dara jëru ci xëccoo dara jëru ci xuloo dara jëru ci werante kon daal mën naa ko tënk ci ne li li waral mu ñàkk am daal ñàkk xam rek la waaye mag ñi xamoon moom yaa woon nañ dëgg dañoo amoon ab taalif bu gàtt bu ñu defoon bu mel ni ci loolu lay wax nga waxoon ni déglul ma wax la yow miy bëgg jàmm akuk juboo saway wi na ko sàmm képp ku bëgg yàlla may la jàmm dangay jubook nit ñi am ak ñoom jàmm ahmadu mbow tuubal te jóg yeddooti soo tilimee xam nga ni war ngaa fóoti te jéem a daw lépp lu yàlla aaye ci jëf ko mbaa nga wax ko mboolem gaay tey balu say dëkkaale ak waa réew mi di leen fexe lu baax fi ku léew mi te lépp lool suñ la ko fayee mu neex la leble ko ngir àddina mi luy jeex la loo fexe tey ëllëg ca ngay fanaani su dee lu baax nga daldi wéy jinaan bu def safaan nga daldi wéy niiraan wa minhuma azana rahman te dellu jéggulu sa borom ngir yàlla sunu borom dina la baal ngir yàlla sa xel mi nay xalam di seet lu yell wettili yàlla tey jëf lu sell te soo bëggee jàmm ci say dëkkaale waa ji defal ñépp ni say diggaale yamale leen ci lépp looy santaane bul xàjj kenn kon nga def seytaane bégal sa waa kër gi teral say bokk te lii la yàlla jox na ngeen koy bokk muñal njaboot gépp di leen labire dimbali leen ngir yàlla mii ko biire del digle tey déglu te bañ di gaaral tey bañ a léebu kenn mbaa ngay naaral nattable ak nettali bu la sànq watul ma kuy rambaaje mbaate mpànk watul ma dégg na watul ma neeñu te ku la seen di làqu ko feeñu te soo doxee ba gis ku lay jëwaale dee ko sagal tey dab ka lay dawaale yéeneen te jëfiyu te boole xool yi amuk juboo boole xalaati xel yi bul wor te bul waru te bul werante bul xàddi bul xoddiku bul werante ma wax la yow miy bëgg a jubóog say bokk juróoma ngi yoo xam ni bul cay bokk wax lus ma nee fëlëg di gàntu lus ma nee fëlëg di gàntu lus sañ nga ko ak dalaaya bokk su doon te loo xamul maandu ca maa nga laaj ko te gaaw ci def lu baax lu bon nga waaj ko kii nag day laaj ban dénkaan ngay dénk nit ki ngir mu maslaa koo xam ne jikkoom neexu ko ban dénkaan ngay dénk ngir nit ki mën a maslaa koo xam ne jikkoom da koo neexut waaw koo xam ne jikkoom da koo sof noo muy mën a maslaak moom <laughs> kooku de xanaa moom moom day fexe moom ba moom jikkoom baax rek ndax dañuy wax ne dañuy wax ne ki ki ki yaradi ko. mu ngoog waaw waaw. sàmm waaw mu ngoog sàmm rek ngay def. jéggale jëllale te it xam ni ne nit ki bañ koy yar dañoo wax ne ba ba ka yarut tax ñu def ko. moom fu mu mën a nekk na na na na yaru rek. Cheikh Mouhamadou Fadal ma jox ci exemple boo xam ne mooy itam ñu ngi ko sëkkaloon du ma leen tudd waaye histoire ba ak tontu la rek ci loolu dafa am xam nga jamono dafa doyoon waar am ñu koy bind lettre di ko sànni ci kër gi di ko wax yu day waar. am ay jamono dañu ko daan def lettre anonyme nga xam duñu def seen tur dañuy bind rek lettre diw diw nangam nangam nangam loolu duma ci duma ko xam naa ñi ko doon bind xam naa ñenn ci ñi ko doon bind waaye duma leen am ci jamono yoo xam ne xam naa dañu ko def def tontuwu leen ñu def seen tur man diw ak diw ak diw ñoo la wax nangam ak nangam ak nangam mu woo leen ne leen gis naa li ngeen bind de ba amu fitti ci def seen tur yàgg ngeen ko bind ma xam ko waaye bi yow nag def ngeen seen tur waaye dama bëgg xam ne Serigne Touba mi mi fi indi xéewal yi ba ngeen bew ba ko bind moo ma yar ba mën ko muñ waaw sëriñ sëriñ Tuubaa seen ngeen bal ma ci seen maam ji baax sax nga xam ñooñu sëriñ sëriñ bi lañ seen maam ji baax yi fi indi xéewal yi ko waxee ba ngeen teew ba ñëwee ma ko bind moo ma yar bu mën koo muñ kon nag ki la jikkoom neexut da ngay da ngay mel na nga war a mel yow rek waaw lépp ngi ci biir mbàkk yi waaw li ñu war a mel rek xamidul xasaali rek gis nañ bokkoon ci maam Cerno rek boo amee jikko ju rafet li na ibnu Malik waxoon rek mu ne sallallahu alayhi wa sallam nekk na moom fukki at Madina di ko liggéeyal këram ma def dara mu ne ma lu tax nga def ko mosuma ba ñu def dara mu ne ma lu tax defoo sallallahu alayhi fukki at sa booy bu nekk sa kër nga xam ne classe suñu Modou Mahfouz bi bu café gi xawee sedd sax mu gëdd la mbaa bu sàggaree mu gàdd la waaye ñu ne fukki at mosuma wax ne nangam defoo ko mosuma wax ne du tax defoo ko kon noonu la ñuy loolu la ca moom rek yow nekk rek ci li nga war a nekk rek mel ni ci war a mel rek te xam ne moom dañ ko yarul rek tey waaw te xam ne dafa xamul itam rek <laughs> jërëjëf Mbacke lay sant bu baax di sant Serigne Bassirou monsieur Abdoul Khoudous di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér waxtaan wi ni mu ko waxee rek képp ku mu raw na nga teewlu rajo yi Daarul Muxti FM da koy jàllale en direct rajo bi Daara ji FM leer gi FM itam bokk na ci rajo yi nga xam ne dina ko jàllale Daara ji FM Kébémer dina ko jàllale ak rajo yi nga xamante ni ñoo nekk diggante Touba lu mel ni Jant bi FM Zik FM i rajo wala fekkee ci wàllu télévision yi Touba TV. ak Lamfal TV danañ ko jàllale su ci wàllu sit internet yi itam Baye Darou Média ak Alwafa Darou ak euh, Touba euh, Vision yëpp boo ci dugg rek di fi fekk waxtaan wi insha allahu taala yi nga xam ne Alwafa mi ngi koy def sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax Mbàkke di la ñaanal sunu boroom guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel euh, la sa wajur wa safoon sos euh, lam sosoon sof nga ko bu baax ndax ataytu ilal mi'taay fi daaril mu'ti baytam ya li nga ci yokk euh, defe naa ne ñabaas yu yàqut sir bi dara macha allah kon dañuy ñaan suñu borom rek mu defal ñu taalibe gu ñu nangoo nangoo nangu di sant bu baax ci euh, nangul gi ñu nangul jataay bi ak may gi ñu ko may ñu ngi ci sant bu baax di sant mboolem ñi nga xamante ni itam ñu ngi bàyyi xel jataay bi ak fu ñu mën a nekk ci àddina si ñu ngi leen di jaare lu bare bari ci eh, jataay bi di wax ne rek eh, suba insha allahu taala ñoo ngi war a seq jataay bi waaw docteur Mbaye Thiam insha allahu taala bu subaa mooy ki nga xam ni moo war a ñëw fii nu seq ak moom jataay bi insha allahu taala samedi Serigne Assane Seck moom itam moom lañu ñu war a seqal jataay bi bu ko defee nag ñu soog a dugg ci ayu bisu jataay bi ko defee dibéer insha allahu taala sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir mu nettali ñu ay nettali ci gaa yu baax yi altene sëñ Ibrahima Jaxat Cubb euh, professeur Ibrahima Cubb moom la ñuy àndal jataay bi altene insha allahu taala moom itam mu indil ñu li nga xamante ni moom la ñu war a mën a séq ak moom ci jataay bi di sant rajo yi ni ñu ko waxee léegi Daarul Muxti FM da koy jàllale en daa ji fm fële ci Kébémer dafay jàllale jataay bi moom itam wal fajiri ak Touba TV ak Sik FM ak i rajo mboolem rajo yi nekk diggante tubaa ak Daaru Muxti yëpp danañ jàll képp ku soxla waxtaan wi itam boo jokk al muridiya tey jii ñëwoon nañ fi jël ànd ak ñun ci jataay bi ñu ngi leen jaajëfal bu baax képp koo xam ne soxla nga koy itam boo jokkoo ak ñii di Al Wafa insha allahu taala daañu la ko euh, daañu la ko mën a jàppandal ci ay son ak ay image loo soxla bu soobee incha allahu taala dina mën a jàppandi kon waxtaan wi képp ku ko bëgg a teewlu rek jumtukaay yëpp jàpp na na ngeen ñu man koo teewlu moo xam ci rajo yi la moo xam ci télé yi la moo xam ci ci ci YouTube bi la fu ci mënti doon boo ci duggee ba ci am na sax groupe WhatsApp boo xamante ni képp ku bëgg a jot waxtaan wi mën nga cee jaar jot ko kon mel na ni waxtaan wi yaatal nañ ko bu ñëpp mën cee jëriñu bu baax a baax ci képp koo xam ni bëgg na cee jëriñu waaye rachun afaada waamew ngëneel moom waaye ngir ñu bëgg a jariñu képp ku bëgg a jariñu insha allahu taala ci waxtaan wi yii ma wax yëpp foo toppee di ko mën a dégg te di nga ko mën a toppaat kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatu